Sommes sama co-débatteur yi di wax askanu Sénégal ne leen euh, na seen xel dal et lu munti am gouvernement bi dina jël toutes ses responsabilités pour benn perturbation bañ a am le 24 février en toute légitimité Sénégal dinañ dem voté dem voté ku leen neex ci jàmm ak salaam. voilà ndax gis nañ en 30 secondes s'il vous plaît. di gërëm Mansour di gërëm sama co-débatteur di ñaan benn ñaan. yal na yàlla teggi président Macky ci bopp Sénégal ci jàmm. voilà may fàttali mbokku téléspectateurs yi tey ñi nga amoon mbégte doon dalal ci plateau bi Oumar euh, Gassama bokk ci membre. Euh, ndawi njiitu réew mi président Macky Sall kuréel googu nag nga xamante ni Thérèse Faye ma moo ko jiite ci jamono jile. voilà merci beaucoup. voilà merci beaucoup à vous aussi Seydina s'il vous plaît permettez-moi au moins de clôturer en beauté. Euh, euh, merci beaucoup aussi Seydina Issa Laye Samb du coordonnateur jeunesse khalifiste du département de Dakar merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. merci beaucoup à vous aussi Adama Di membre merci beaucoup merci beaucoup à vous aussi et infiniment Souleyman Diallo membre de la société civile s'il vous plaît leader voilà président de euh, du mouvement voire de l'ONG Otra Africa merci beaucoup on te voyait plus sur des questions qui interpellent plus les Sénégalais de la diaspora mais je pense que les hein. citoyens sénégalais aussi spéciale à l'équipe technique bi nga préparation coordination émission bi mention spéciale à la rédaction de de la DTV Malin leen jox dig daje ci Nile. DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé.

Travailler, faire les économies et bien dépenser. Chaque semaine, une toute nouvelle émission remplie de conseils, d'astuces et d'histoires à succès. C'est l'actualité économique qui vous intéresse. Faites travailler vos sous. Question d'argent, un programme de la BBC. L'actualité sportive revient sur la DTV à travers votre émission Débrief. Tous les sports seront au rendez-vous. Le basketball, le football, le handball, l'athlétisme, les arts martiaux, bref, c'est tous les sports sur la DTV à travers votre émission Débrief. Production DTV le colo, nous film film la bu ñu leen di présenté ngir bégal leen yee leen jàng ak jàngale tamit. tuddee doom ji. wax na lépp lépp fooy histoire yi leen di nettali yëpp fii la xewee ndax réalité souvent day dépasser fiction alxamis bu ne maanaam jeudi di ngeen am ñaari épisode à partir de 21 et heures na ngeen ko xaar di ngeen gis li ma leen wax. saison 2018-2019 de la NBA arrive doucement mais sûrement et vous pouvez vivre les soirées chaudes de la NBA sur DTV. Une saison qui sera chaud et très chaud avec d'une part LeBron James du côté des Lakers mais également Stephen Curry du côté de Golden State et pour les par Kobe Bryant. La NBA le meilleur du basket au monde reprend sur la DTV. Des commentaires, des analyses, des reportages à suivre bien sûr lors des soirées show de la NBA. La NBA, c'est la magie du basketball mondial sur la magie de la télé, DTV.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 Pour l'organisation de vos salons, foires, conférences, Escaf Even met à votre disposition du matériel de dernière génération. Des chapiteaux de plus de 1000 m2, des tentes de 9 m2, des tables et des chaises standards, des tables et des chaises VIP, des écrans plats de dimensions variables et des panneaux numériques. Escaf Evans, c'est aussi vos événements clés en main avec du matériel de sonorisation high-tech et des estrades pour podium. Escaf Evans, une expertise avérée pour l'organisation de salons, foires et conférences. Escaf Evans, l'assurance d'un événement réussi. Le goji séché, le fruit du bonheur, le plus puissant produit naturel d'antivieillissement et d'antioxydants, enfin disponible. Le goji séché, distributeur exclusif, excave, Business Trading, rue 14 prolongée, Aslem 1 Solida. Le goji séché, le fortifiant naturel qu'il vous faut.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 képp kuy seetaan ñi tawa tëdd ci kër yi ñi taw a tëdd ci lalu opital yi ñi taw di doxaaleeg seen jàngoro ñoo tëdd ndax bu ñu tëddee yu bari tëdd yàlla yàlla saafara ñëpp lépp luy méttiwaay li ko dalee ci catu kawaru bopp ba ci tànk yàlla yàlla saafara ko ñi ngi ñaanal ñi nga xam ne ñoo nekk ci xar yàlla génne leen ci di bàyyi xel ñi nga xam ne du ñu dëñ di ñu bàyyi xel te nekk ci kaso yi yàlla na yàlla génne leen fa ñu delluwaat ci seen i yitte di ñaanal ñi nekk ci yoon di tukki yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm fekk jàmm delluwaat ci seeni njaboot fekk leen ci jàmm di ñaanal ñi faatu ñëpp yàlla nañ ànd ak Seyda Zeynab Fall wax aaya Seyda Adama sekk bii di yaa layta qawmi yaalamuuna bima gafara lii rabbi wa jaalani min al mukramin yàlla na ko ñëpp wax mag ñi yàlla yàlla sàmm leen ndaw ñi yàlla yàlla teg leen ci yoon ñi nekk ci néegu sey yàlla barke la leen seen sey njaboot ga ca soqeekoo yàlla yar leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqim célibataire yi ci kër gi ñu beral leen ci yéene yi ci plateau beeg ñu ci rejet rédaction ak caméraman yeeg taarikal la célibataire yi moom xus ci kër gi yàlla yàlla walluñu ci 2019 bi balaa jeex <laughs> kër gi <laughs> ñu baree baree bari dégg alxayri taarikal la yàlla <laughs> yàlla def jàmm ziar nañu ñëpp jaajëfal leen ci bàyyi xel gi yaay ci tànk yu nagam yi mère Ndioba duñ ko fàtte ci tànk yu nagam yi mu yóbbaale yaay yeeg papa yëpp tabaarakallaahu yàlla yàlla saafara leen jërë ngeen jëf Modou Mbacke seeti studio 2 mu wax ñu en en roqeya aha taarikalla mu bokkul ci borom kii yi hmm? euh, soxna roqeya salaamaaleykum salaam yaa sa ngay doon <laughs> wala excaf dem dikk <laughs> <laughs> Escaf dem dikk. ñu ngi lay nekk fii yaa ngi foofu. waaw maa ngi néew foofu. tey studio 1 2. gis nga 1 2 yëpp waa <laughs> tey. d'accord këru yëglekaay lu ñuy yeewoo. bokk na ci li ci gën a fës yaa oustaz l'observateur mi nga xamante ne dafa xëy tey ak ñi ne waa kujje gi ak tamit li nga xamante ne mooy présidentielle yi yéenekaay bi nañu am na ndaje moo xamante ne dañu ko amaloon ngir waajal présidentielle yi lu mel nag doxoon na ci diggante ki nga xamante ne mooy Aly Ngouille ak ki nga xamante ne mooy Ousmane ngoom naka noonu ak général Lamine Cissé waxtaan wu ñu amaloon euh, loo xamante ne wàllum présidentielle yi nga xamante ne moom la ñu dëgmal moo ko rek daal di wundu l'observateur moo ko rek daal di xëyee tey yéenekaay bi yemul foofu ñëw na ci ñi nga xamante ne ñooy woy kuje gi ak tamit yoon yi nga xamante ne moom la ñu nas ngir mën a jàkkaarloo ak kii di président Macky Sall. ñoom nag ñu ne tey jii jot na jàkkaarloo mënatu ñàkk faaw rek ñu daal di jàkkaarloo ak njiitum réew mi fexe ba rekk lépp loo xamante ne moom moo jëm ci élection yi ñu daal di koy gàntal gannaaw bi nga xamante ne ñoom gàntal nañu seen euh, li nga xamante ne mooy seen i candidat ku ci mel ni Karim Wade ak xalifa Sall loolu l'observateur yéen kaay moo ko xëy tey ci wu njëkk beneen bi yéen kaay daal di xëy tamit ci wàllum politique muy source a yéen kaay bi xëy jox kàddu ki nga xamante ne mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllum tourisme bi moom Mame Mbaye Niang mu ngay dànkaafu wooy ku jégi la mu leen xamal mooy ñoom noppi nañu ngir jàkkaarloog ñoom fu ñu leen woo rek dinañ leen wuyu te ñoom nee nañu du ñu seetaan benn yoon ñoom ñoo ñu di waa kuje gi nara rek daal di sóob réew mi ci ak guuta loolu la source a xëyee ci xëtam bu njëkk tey gannaaw source a beneen bi muy vox pop moom tamit dafa xëy ci jàkkaarloog taskatu xibaar yi nga xamante ne ñoom woy politique yi moom la ñu rek daal di xëyee gontoo woon démb yéen kaay bi nañu ñi di way ku jégi nag nas nañu seen i pexe ngir jàkkaarloog président Macky Sall te nee nañu fi mu toll nii seral bi dafa jeex faw rek ñu won ko ne ko yëf yi jaay doole la te jaay doole moo koy faj loolu mu ngi ci xët njëkku yéen bi yéen kaay tamit ñëw na ci président Macky Sall ak président Adama baro démb ca Gambie daal nañuy dalloo po bi nga xamante ne moo dox si diggante ñaari réew yi Vox Populi ñu lu toll ak fanweer ak juróom-ñetti milliards ci suñuy koppar moom lañ ca rek daal di def ci boobu lépp po beneen bi yéen kaay muy libération mu daal di xëy ak ñun ci ki nga xamante ne ñaaw ñaawteef la woon sonaloon na bu baax a baax ñi nga xamante ne ñooy star yi moom moomu nag ci réewum Amérique teg nañu ko loxo yéeni kaay bi na ni lu ni mel mu ngi daal di amee fii ci Ndakaaru gannaaw bi nga xamante ne police yi nekk ci àdduna bi yëpp doon nañ ko rek daal di wër tey nag gannaaw ba ci police bu daal di lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñooy police yi nekk ci àdduna bi ci lañ ko rek daal di teg loxo moom waa jooju nga xamante ne star yi nekk ci réewum Inde sonal na leen sonal ndax bëri na ñu mu ci rek daal di faat te turam dugg na ci ay faat yu bari yoo xamante ne danañ ko tudd ci moomu lem réew waaye tamit ci ci wàllum njuñ njaaca teg nañu ko loxo fii ci Ndakaaru libération tamit ñëw na ci rekk li nga xamante ne moom la Sénégal ak Gambie créé woon démb muy li nga xamante ne mooy pont bi dox si diggante ñaari réew yi yéen bi nañu li nga xamante ne président yi bari tële woon nañ ko ci réewum Sénégal démb président Macky Sall daal dina koy dalloo moog président aadama Barrow gannaaw libération yéenekaay Les Échos daal dina ñëw moom tamit ci ñi nga xamante ne ñooy waa kuje gi yéenekaay bi nañu ñoom waa vingt cinq nee nañu fi mu toll nii jàmmaarloo mënatul a ñàkk. waaye bu dee waa APR nag ñoom ñu nga leen di dànkaaf la ñu leen xamal mooy nguur gi la ca war yépp dana ko def du seetaan kenn di dugal réew mi ci am pëccëxoo yéenekaay bi tamit daal dinay ñëw ci mbiru po njuuj njaaj boo xamante ne ni. dafa rek daal di am ci ki nga ñi nga xamante ne ni dañu doon nekk ci ginnaaw xarala yu yees yi doon rek euh, chantage ay nit ngir jëli koppar libération yéenekaay ñëw na ci ak site boobu nga xamante ne moom mooy Seneprono doon fësal ay vidéo yu jaarul yoon. beneen pa yéenekaay muy le quotidien moom it daal di ñëw ci ñi nga xamante ne ñooy waa C25 ñoom it yéenekaay bi nañu fi mu toll nii. ñoom seen parrainage mooy lan xeex bi wàllum xeex la ñu jël ne dañuy jàkkaarloo ak président Macky Sall ne nañu dootuñu ko may dara yéenekaay bi tamit daal dina ñëw ci mbirum xalifa Sall ak ab euh, kii di Karim Wade le quotidien nañu Karim Wade ak kii di xalifa Sall ndax ñoom seen électorat du mujjee dem ci kii di Idrissa Seck ndax kat moom dekk na ci candidat yi gën a dëgër ci kujje gi te moom parrainage nangul lañ ko ko loolu le quotidien moo ko xëyee tey daanele ak euh, wàllum tàggat yaram sunu làmb yéenekaay bi yëngu ci wàllum làmb moom tamit daal dinay ñëw ci li nga xamante ne mooy kii di Eumeu Sène moom roi des arènes yéenekaay bi nañu jot naa teg ci loxoom lu tolloo ko téeméer ak juróom fukki million ngir mën a jàkkaarloo ak kii di Modou Lo bi nañu làmb jooju taxawal nañ ko te ci lu dara danañu ko rekk daal di fësal yéenekaay bi tamit bàyyiwul Modou ndax xëy na tey sampal ko laajte nañu ndax moom Modou la ko toppoon ak nañ ko xamee woon ci xàllum wàllum xar fa xufa dafa dellu ginnaaw ñi nga xamante ne nag ay làmbaloog lañu ku ci mel ni Bekkaay Mbay Ippo Ngaari ak Ñoxobaay ñu ngi joxe seen xalaat ci taxawaayu mburum parcel moom di Modou Lo war a jàkkaarloog Eumeu seen di roi des arènes Oustaz taar yéen kaay yi kon tey lii la ñu xëyoon fësal. waa kay jërëjëf ñëw sant ko gërëm ko. Mhm. am plateau bi dañ ci am koo xam ne phénomène la moom laa nekkoon nii di ko <laughs> di ko bàyyi xel. <laughs> ku yor téléphone am di selfie xaw ma ba ci tànk yi daal. kooku moom kenn la. na. doy na waar boobu lan la ci journal bi wax moom. waa site bi xam nga coow lu bari juddu na fan yi ci ay nit ñoo xamante ne. Mm. dañuy wane seen i publication maanaam seen i vidéo ak seen i photo yoo xamante ne daal naka sudul noonu la doy na waar. Mm-hmm. site bi di ko dugal yéen kaay bi nañu yemuñu fa ndax ba tey ñu ngi wéy seen chantage googu nga xamante ne moom la ñuy def. ka mujj benn soxna buy wuyoo ci ay Aysatu Fay moom la ñu dugal ay mbiram ci biir site bi. la les échos nag tey ci loolu la rek daal di xëy gannaaw bi ñu ko fi tuddee ci lu yàggul dara seen prono boobu ak vidéo yi yenn ci nit ñoo xam ne ay am na ñu baat wala ay kilifa lañu ci biir réew mi tey loolu la xëyewaat. mu mel ne li nga ubbee yi tamit ñu bari ci sénégalais ak gambien yi moom dal na seen xel mooy pont bi ñu ubbi. wa mu doon loo xamante ne nag oustaz ëpp na ay fanweeri fan at ba nga xamante ne doon nañ ko xaar ci nguru président Senghor nguru président Diouf président wad ba tey ñu am ko mu doon li nga xamante ne képp ku tàmm dem ci bët saalum réew mi rafetlu nga ko ndax pont bi dina yombal wàllum dem beek dikk bi démb président Adama baro ak président Macky Sall ñoo ko dalloo waaye nag dañ ko doon ubbi noonu fii ak eh, weeru mai wala juin bi ñu dëgmal lañ ci commencé jaar loolu tamit euh, bokk na ci li nga xamante ne jot na dina xaw a lëndëm ci xelu askan wi waaye nañ topp ne liggéey yaay yembagul yëpp yëpp rek. Ah, ah ah bii tamit dañuy xaaraat weer. waaw dañuy xaar fii euh, wala juin incha allah ñu soog cee mën a yéeg wàcc. baarikàlla mhm. <laughs> jërëjëf kon ñu ngi lay maa ngi leen di fay di leen euh, fekk si léegi si plateau bi incha allah. dëkkal jàmm. incha allah jërëjëf. ñu nuyu ñi ci plateau bi Oustaz Birama Bassine jaajëfal ko bu baax a baax borom logique. alaaji Fallou Seen ñu nuyu ko ziyaara ko jaajëfal ko waaye <laughs> ki ci <laughs> tubaabaloog bi <laughs> loolu dal ba sa téléphone yi nga yor di da nga naan selfie xanaa est-ce que du mooy ah, sot selfie ba ciy tànk sinap kay la ah? sinap ba ciy tànk non sinap seetu nga def seetu ah si na nga koy seetu d' accord seetu de moo gën seetu Oustaz Birama ñu bàyyi la nga nuyoo salaamaaleykum Oustaz Mokhtar mm. di leen nuyu di nuyu El Hadji Fall di nuyu uh, madame <laughs> soxna Louise <laughs> Badiane Louise <laughs> madame Ba madame Ba mm-hmm. eh, Oustaz di leen nuyu bu baax di amaan mbégte bokkaat yéen jotaay bi mm-hmm. di nuyu ñi nga xam ne itam ñoom ñooy seetaan ndénkaane Euh, comme ni nga ko baaxoo di def di nuyu waa Jolof ak waa Louga ak waa Nguufat door a dem Kaolack incha allah Oustaz Makhtar di ñaanal ñi nga xam ne ñooy seetaan te jaga di yàlla na yàlla fëgg seen bopp. amiin euh, comme ni nga ko waxee rek ñaan ki nga ñaan nga yóbbaale ñu si biir incha allah waaye daw li yeeg ñëpp rawatina suñu soppee soxda soxna Seyda Zeynab yàlla na yàlla xaaree ko aljanna. ak mboolem ña koy fekk ak ñoom fa fekk ñëpp incha allah. xëy na comme ni nga ko ni nga ko ni nga ubbeeg ni nga waxee ak soxna Roqee wax dëgg yàlla pont bi nga xam ne moom mooy pont Sénégambie bi nekk na liggéey bu ama am solo loo xam ne wax dëgg ñëpp ko rafet rafetlu itam di si félicité ñaari njiitu réew yi nga xam ne ñoom ñoo saytu liggéey bi ba mu yemb wax dëgg yàlla ndax lii la soxla ndax ab dëkk wala am réew bu ko ay nit bokkee kenn ku nekk da nga war a mën a am possibilité wu déplacé wu jëm fa nga bëgg a dem te doo sonn te itam doo fa def euh, yenn coono yi te itam pont bi wax dëgg nekk na liggéey bu ama am solo wax dëgg yàlla maa ngi dégg sax roqee wax ne nekkul opérationnel mais man li ma dégg démb bokkul dama dégg ñu ne gros porteurs yi ñoo ci mënagul yéeg mais oto yi ndaw yi euh, mën nañ ci mën nañ ci mën nañ ci jàll te dafa am ay quelques routes ñuy def rek ci suuf pour yéeg bi loolu dégg naa démb ci benn journal benn rajo ñu wax ko beneen bi def nag mooy oustaz li nga xam ne moom la ñu jëm te Euh, fii fii fii ba fii ba fin mars si la ñuy wax mooy élection yi ndax comme li ngay wax rek toujours xëy na sax suñu euh, yéenekaay yi dana am yeneen yi ñuy bind waaye wàllu politique bi moom mooy dominer ci dañuy wax toujours waaye li gën a am solo rek ba am solo mooy nañu xam ne réew mi ñun ñoo ko moom comme ñun ñoo moom réew mi ñoo ko bokk dañuy liggéey ngir benn mbir dañuy liggéey ngir defar suñu réew dañuy liggéey ngir defar suñu suñu ëllëgi doom kon tam loolu lu jar bàyyi xel la oustaz Euh, li tax ñi di ko waxee nag mooy bu fekkente ne yàlla daf ñoo nattu ñun ñuy wax xëy na suñuy wax am na solo wala amul solo am na ku muy influencé wala amul ku muy influencé jamono ji dafa nekk jamono ju sensible moo tax faw ñuy bàyyi xel yenn kàddu yi nga xam ne dafay jóge ci ñun di dem loolu bu koy wax nag ñun dañuy laawaale ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si euh, wàllu kujje gi ak ñi nekk ci nguur gi ndax jàmm oustaz bu ñu waxee jàmm jàmm nekkul lu ñuy forcer nit jàmm processus la jàmm dañ koy yoytal ba dal ko jàpp ko yeew ko ci bant jàmm jooju nag li koy njëkk indi moom mooy yoon comme ñun dañoo nangu ne euh, conseil bi dafay génne ne lu mu génne loolu mooy lay jàll ña mu génne ne ñoo ñooy ay candidat idéal ñoo ñoo war a dem pour dem élection na ku nekk dem campagne ku nekk faral ka ngay faral bu bésu woote jotee ku nekk jël sa carte dem woteel ka nga bëgg a woteel Oustaz Makhtar yaa mag te yaakaar naa ne fekkee guloo fi لوفيك ليدر بروتيك leader فات bu داك اي bakkanam توجور ay élection سوني سير سوني فرير سوني سوني frère لول suñuy suñuy loolu ني ياو نيكول نا دانيو دانيو دانيو دانيو بوغ دانيو بوغ لو dañoo ولا نانغام ديديت مي واي كوت عربي بو arab bi bu waxee ne laa yaslamu sharafu rafiu min al ada xata yuraaqu ala jawanibihi damu Oustaz Makhtar deret buy tuuru a bu fekkee ne à chaque fois buñ ko defee li fay nekk moom mooy yées wala boog du weesu wala fi nekkoon kon wax dëgg yàlla jaratu ko kon jàmm jógi daal nañu xool nu ñu fexee ba ñi dem ce élection yi ñi dem ca ci jàmm mu jóge ci jàmm gi delluwaat ci jàmm loolu daal oustaz wax dëgg moom laa amoon ci tënk si li ma gis si yéen gars yi am na solo am na solo jërëjëf oustaz Birama mi jaar Louga soog a kaw Kaolack ñu jaajëfal ko bu baax a baax a baax euh, alaaji Fallou Sène waaw oustaz boo nekkul logique moom boo nekkee Fallou rek kii génn logique alaaji fàllu ngay dégg mais logique moom fëllu logique moom boo fa duggee moom fëllu ngay doon d' accord ñu bàyyi la nga nuyoo. bu ne carré boo feneen mel neneen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu ñëpp di leen ziare. Moussa mm. ñu ngi lay nuyu. di nuyu Oustaz Birama di nuyu Louise ak uh, Roxee Ngom. muy fekk si ci jataay bi doon jàllale sànq yéenekaay yi uh, di nuyu ñu seetaan uh, émission bi di ndénkaane li nga ci war a mën a waxtaanee bëri na du jeex moo tax bu ñu fi toogee rek dañuy dénkonte. ndax xel du du doy te saa yu ñu yëkkatee waxtaan rek dañuy gis ne day daj Sénégal euh, comme ni ko roqee waxe sànq rek lu jiitu muy ñëw ci jataay bi muy yéenekaay lu ci gën a fees ndax fim mu ne euh, bis bu nekk rek dana am lu ñu dégg lu jëm ci wàllu wote fal njiiti réew Sénégal Sénégal yàgg na amal ay wote mm-hmm. waaye ni mu indee bopp xibaar yi dama cee jàpp ñett mm-hmm. jàpp naa ci xibaar bu neex muy diggante Sénégal ak Gambie ngir gën a yombal seen wàllu dem ak dikk ak tamit gën a suqali seen jëflante ci pom boobu nga xam ne jébbale nañu ko li ci doy waar rek mooy euh, nguur gi moom day jébbale ba noppi day ubbi ba noppi te yaat ci saa si euh, ñu ngi ciy def ay gëstu sax di xool lu mel noonu ndax day jébbale loo xam ne li ñu xamoon ci looy inauguré wala looy jébbale dañuy jàpp ne lu opérationnel la. Mm-hmm. loo xam ne dañ koy mën a jëfandikoo. gis nañ ko ci Ila Touba gisoon nañ ko ci arène bi ba barki démb lañ commencé sax di fa bëre. li ci mujj nag mooy pom bi ubbeegul euh, bu ñu ba jëmmi jamono nag lañ ne ci lañ koy ubbi mën a doxal wàllu dem géeg dëkk gi. Hmm. day mel ni kon ñoom wàllu euh, délai daf leen di njët wala app buñ ci àggee moom nañ joxe la ñuy joxe rek waaye buñ jógee ci délai boobu nag ñu tëjaat ko am leen luñ ci dolliwaat ndax. Euh, jumtukaay bu ñu ko daan jébbale dañuy bàyyi ba lépp noppi doo koy jébbale léegi ndax loolu calcul politique la ndax fi mu nii dëgg mën nañ ay wote ngir boole ko ci bilan wala euh, fi jamono toll la dañu koy jébbal ba noppi te pareegul. wala campagne déguisée. waaw wala campagne déguisée maanaam daal lu ko bëgg dugal ci bilan ndax fi mu ne ñu ñu bëri ngi sant rawat ni ñuy jël yoon woowu. gis na dina yombal wàllu dem ngeeg dëkk gi loolu mooy xibaar bu neex bi xibaaru njàqari nag mooy wote bi ñëw. gis nañu waa ku gi bootu ci kuréel gu ñuy wax C25 mhm. di ñaar fukk ak juróomi candidat yi seen euh, yi bëgg a jóg folli Macky Sall démb rek daje nañu ci dalu bokk gis-gis ngir boole seen gis-gis nekk benn bopp ngir daal jaamarloo ak nguur président Macky Sall waaye li ko doy waar di njàqare ci ñun ñii war a sànni carte mhm. mooy dañuy tëkkoonte ñoom ñaar ñëpp mhm. ñee nee nañu faaw ñu génn yënga-yëngal ndax dañu ko xañ Khalifa Sall ak Karim Wade. Mhm. waaye féete Macky Sall tamit nag ñoom duñu ko seetaan sàkku nañ ci nguur gi nag mu jël ay matuwaayam te boo génnee ci dëkk fi yëpp bopp koñ boo gis am na ay alkaati yi taxaw wala ay ay ndawi kaaraange léegi ñun ñi war a sànni carte kon lan moo ci suñu wàll. Mhm. mu mel ni kon jarul coow jarul fitna ndax ku ci nekk boo nee bay sànni carte da ngay wéet fa nga koy defee. kon coow lu muy bëri bëri ndax buñ demee ba sànni carte ba noppi nañ xam ne parrainage bi wute naag woote. ndax ñi ñi sañu woon parrainage mën nañ bañ a kon mel na ne njàqare li mooy nañu fexe ba musal réew mi ci aw ay wala fitna ndax bu jàllee jàll na ndax ku jiitu ñi xam ne doomu Sénégal la hmm. donte nag lu ci bari gis nañ ne am na yu jaaduwul yu ci am hmm. waaye nag bay wéy na mbuus hmm. ndax ñeenti candidat ñoo taxaw fi mu ne juróom waaw euh, juróom juróom ñeent ñoo taxaw ci kanamam Macky Sall bu ko defee kuy jóg ku leen di jàppale jàppale leen waaye nag ñi sànni carte ñoom la mbir mi dese leneen tamit euh, roqee wax na ko muy benn site boo xam ni dañu fay fësal caay-caay mm-hmm. te loolu Sénégal xamu koon dem ak dem loolu lépp dafay jeexitaloo ci réseau sociaux yi mm-hmm. nga xam ne léegi xeetu mbalit la lu waaye jot sànni ci léegi li ci doy waar muy menace mooy ku ci nekk mën ngaa xëy rek li nekk sa portable jënd foofu ni gaa yi def di leen bëggalante ci portable léegi yematul ci kenn lépp loo def rek jàppal ni ci mbedd nga ko sànni wax na ko léegi koo xam ni dafa nekkoon as ndaw ak as ndaw mere ko jël ay yëfam di ko def ci site boobu di ko siiwal loolu dafa ñaaw lool. Ah, ku góor ki moo. joxe waaw mooy def loolu moo def loolu mu nekk lu ñaaw nga xam léegi réglement de compte lay doon. Hmm. léegi bu ma lu Louise rek. yàlla na am benn vidéo wala benn photo bu xaw a doy waar rek maa ngi koy xaar waaw léegi mel ni Oustaz Birama rek am na lu ma ko xamal mu mm. mel ni léegi loo xamal nit rek da koy weer léegi est-ce que jaaduwul kon ñu moytandiku vidéo sa bopp yeeg photo waaw waaw ak ak selfie dee bu légal bi la ñu bari tey seen i lañ ko defal waaw dëgg la dëgg nga góor ñi dañoo doy waar da ngay am jëkkër bitim réew mm-hmm. wala aw far mu ne la mm. ba ma bëggee bëggal daal comme maa ngi bitim réew te sore nañu was papa dafa ñàng mm. léegi bëggal ma ci benn vidéo rek mel na ñoo nekk maag yow mm-hmm. yow nga bëgg ko neex gis nañ fi ñoo xam ne tey gi loolu moo leen weer doon bégal kenn ndekk ki ngay bégal ñëpp a ngi lay gis mm-hmm. kon daa mel ni daal daal réseaux sociaux amul buntu amul fenêtre nit ñi nañu tey bu baax a baax nañ ci tey loolu am na solo ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax li ciy dugg mooy wax ne lépp lu laal internet rek mooy jàppal ne sànni nga ko ci marché ba mm-hmm. nekkatul loo moom du kenn nga ko envoyé mais envoyé nga ko ay millions ba tax na futteeku photo moom ku ne na koy moytu ndax ku futteeku photo wu ka nga koy yónnee yamul sa digganteeg moom de ci serveur la nek ñu ko log heure bu len nexé log ko kon mom euh, jangale kat yi sax lay wax ñu oustad Birama dañ ci wara def fatwa sax ne dafa haram même bu dee jigen la di photo wu ko ci awra ci melokan wu solo solo yére di ko sa jëkkër haram na lutax mo haram moy ko xam jumtu kay yi mi jaar da ngay yegg ne kon ndekete du sa jëkkër nga koy yónnee way yang koy yónnee aduna dafa haram ko dul sa di gis yenn yi ci sa yaram. Mhm. loolu yëpp mooy indi yu mel noonu. xale yu jigéen yi génération Capa Ñaama bii moom. Mhm. yooyu lañ xewal taal seen musique fu teeku fee ci yónnee saw far. Mhm. taal sa musique fu fee ci yónnee sa jëkkër yooyu ñu éviter ko bu baax a baax ndax mooy indi yu mel nii. te ñu mel nii sit bii ñu ngi nii doxal ak mbanditisme goo xam ne ba léegi ñu ngi ciy wax. état bi ñu ngi naan dinañ jéem ba léegi mënaguñ ci dara. te ba léegi mi ngi wéy di am. kon li ñu war a def rek mooy ñu jël suñu matuwaay bopp ñu éviter lu mel noonu. ku ko yor sa téléphone supprimer ko. amul dama koy denc nangam fa lay rëccee doo ko yëg Louise. waaw oustaz Mactar maa ngi lay ziar di nuyu tonton Fall di nuyu Roxee di nuyu monsieur Diaw chéri Aïcha. gis lay sagalee. kan mooy Aïcha. waaw dégg nga <laughs> donc. Aïcha sama doom moo tudd Aïcha yaayam. tudd Aïcha de eh, yow xam nga. léegi yow oustaz mag day day day day xaar mooy Aïcha wuy ma léegi yow waxal soxna si turam soxna si la tudd soxna si Mbay Jaw la tudd bàyyi ma wax ci doom boo tudd Aïcha waaw kay na leer leeral wala ñu bàyyi na lépp leer leer na jàllal Louise kala mooy Aïcha jàllal jàllal donc Louise kuy kuy Aïcha oustaz Mactar may may féliciter président bu baax baax président Adama pont bi euh. inauguré vraiment fierté parce que sénégalais sénégalais comme pont bi soulagement bu mag parce que ñëpp bac bi ci au minimum des fois donc euh, mu nekkoon coono bu voyage euh, de l'autre côté da ngay xalaat sax bac bi donc pont soulagement pour ñëpp bi fi inauguré gum yëpp foog naa ne moo moo ci ëpp solo. macha allah léegi nag ndax dina opérationnel wala du opérationnel ñun je pense que débat boobu moom léegi duñ koy tëb ndax commencé dañ ko tàmm léegi. donc euh, donc garaawul lu l' essentiel mooy que pont bi am na léegi si ay fan yu néew dinañ ci ñëpp dañ ci mën a jàll. Euh, kenn dootul sonn ci ci wàllu bag bi ak ci wàllu dem ak dikk bi fii diggante Sénégal ak Gambie bi benn aspect bi mooy opposition bi tànk yuñ ñu taxawee jamono bi mooy tànk soulèvement. Tant que yëngal dëkk bi euh, man sam xel dafa xaw commencé dal ci bien que accepté wu ma lu fi am yëpp mais sam xel dafa dal ci sécurité Sénégal jamono bi mooy xool keroog si guddi bu conseil constitutionnel euh, proclamé résultat am ñi jot am na ñu jot génn commencé sànni xeer talp na mais dafa mel ni soulèvement yi deful dix minutes pour dire réactivité force de l'ordre et loolu c'est très important dans un pays

et ci civilisation boobu la Sénégal jëm. donc euh, loolu ma koy rafetlu bu baax a baax a baax te xam ne Sénégal moom léegi moom waa ji yatam la yor rek ku ñemewul dóor bul génn. beneen aspect bi mooy euh, vidéo séné porno yi man je pense que Kocc euh, condamné wu ma ko torop mooy. Ah, mooy Kocc. mooy administrateur séné porno. Hmm. condamné wu ma ko parce que. Hmm. li muy yor vidéo yi muy publier dañ ko koy jox. Hmm. il faut que les Sénégalais ñu yeewu ci benn affaire mooy que ne mën nañ pirater sa portable fi nga toll jël say vidéo man si crois pas mënul nekk. ko ci vidéo yi muy yor ñaar ñëpp lay condamné. non xaaral ma expliqué vidéo yi muy yor. c'est que yi mu yor. ko cooc <laughs> yi muy yor. lay condamné c'est que vidéo moom nit ñi am nañ ko lu yàgg kenn dugalu ko. me mais nit ko ko yónnee. gis nga mais même ko yónnee c'est pas normal que muy. waaw mais normal mais nit ñi. waaw mais xam nga est-ce baax na baaxul. man je pense que moom rôle am dafa essayer di redresser nit ñi. Hmm. parce que bu nit ñi demee ba xalaat ne ii man de sama vidéo bi mën a tëpp ci loxo kocc. Hmm. bu subaa duñ ko defati. c'est-à-dire que c'est hmm. une peur bleue ñëpp ragal kocc jamono bi qu'on l'accepte ou pas kocc moom yóbbu na fi ñëpp nañ ko nangu rek. léegi nag boo demee ba yow soo naree def benn affaire di nga xalaat ne ah am na kenn ku toog ci gën a kanam ordinateur am de bu ma deful nag dina jot sama vidéo dina ko publier ci internet bi doo ko def sénégalais seen jabar yi torop franchement mënoo nekk fële seen jabar nekk fii ngeen mën a yëg bànneex ci moom mënul nekk da ngeen di mën di ñëw wala seen jabar di leen fekk si mais mënoo jàpp seen jabar yi kat leen ci internet bi ñu leen yónnee vidéo di leen yónnee ay yeneen ay affaires yoo xam ne euh, ku ci jot ñoom tam ñu rus mm-hmm. après ko euh, jot si dugg ko ci internet bi ngeen di kaas mënul nekk. d'accord roqee daa loo ciy dolli wala. ma ñu yeewu ñu yeewu rek. Ah, ñu yeewu rek te xam te affaire règlement de compte bi tamit nañ ko bàyyi xel. Mm-hmm, euh, lu am solo la xale yu jigéen yi xeexante bi ci seen biir balancante vidéo yi lépp ñoom lay doon mais nañ gën a yeewu rek. d'accord nañ gën a yeewu mais état bi na ci def liggéeyam. na ci def ay liggéeyam. ñun site bi bokk naa ci ñi ko njëkk yeek yegg Sénégal. état bu ci mënoon dara ba léegi lijjanti na ko. waaw am na lu mu ci man waaye dañ ko mënta localiser mooy problème voilà c'est ça. Mm, am lu mu man jàpp ko. man mii di wax. dañoo liggéey ci suñ plainte mi ngi procureur. Mhm. ñun en tant que ànd sàmm jikko yi. sàmm jikko yi ok. loolu bokk na ci li sos kuréel boobu. Mhm. site bi. Mhm. bokk na ci. def nañ ci ay jéego yoo xam ne ingénieur informatique télécomme télécom tout lañ ci liggéeyal. mais tënk nañ dara ba teg ko ba teg ko ci taabali procureur mm-hmm. mën naa cee génnee leen rek mooy premièrement mën nañ fexe ba Sénégal mm-hmm. ku aayu lool ci informatique doo seetaanati site bi mm-hmm. muy première jéego voilà mën na nekk mën na nekk c'est ça lu tax leen ko mais def jëmuñ ci mooy li ma wax ne jéemuñ ci dara et pourtant am na lu ñu sos sax fan yi tey boo demoon procureur bu joxoon ordre Sonatel jox ko Expresso jox ko Tigo ku connecté ci seen réseau doo ko am. xanaa nga nekk informatique bu informaticien bu mm-hmm. aay. am feneen foo jaar. Mm-hmm. te loolu jéego la. Mm-hmm. ña ca bitim réew di ko seetaan fa lay alhamdu. mais ñu protéger xale yi nekk Sénégal. mais connexion cent francs deux cent nga mën a dugg ci site. am na lu nguur gi créé fan yi sax ñuy wax cyber euh, sécurité. sécurité euh, cyber criminalité lu mel noonu. lay xeex woon na cyber criminalité. waaw loolu man daal defe naa comme ni ko wax ci sàmm jikko yi sàmm sa bopp rek. ak fegu ak moytu. mooy première jéego ñun foofu lay mujj mooy nit ñi nañ xam seen bopp que li doy waar Sénégal lañ ko tuddee mm-hmm. seeni porno mm-hmm. boo nee seeni porno naan mooy mooy ñaaw ñaaw téefu Sénégal la bi coow li jógee dafa ubbiwaat beneen site mm-hmm. même buñ tëjoon bi ubbiwaat na beneen site bu nekk ñoo xam nañ ci yu bari lu matul benn un mois la ci Sénégalais yi am six cent et quelques comptes inscrire nga xam ne même buñ tëjoon site bi dañuy wéy di jot ay vidéo seen léegi email léegi tey site bi am na un an yu teg ba jàpp deux ans ñaata Sénégalais ñoo fa nekk ba tax na ñu bàyyi ci xel ak tamit ñi koy visité ñu ragal yàlla ci li ñuy visité mais xam ne li ngay site bi ngay dugg di seetaan li ngay xool ba xam dugaluñ ci sa bos xam loolu loolu mooy kumpa gi saa yoo xëyee da ngay xool ba xam yow sa vidéo def ñu wala sa bopp waaw man man un an xaw ma site ba la ca nekk waaw un an xaw ma ba la ca ndax yitteelu ma léegi loolu mooy premier combat bi ci sénégalais mooy ñu fexe am ci lañ naan sénégalais yi bëgg da toog doomu diw de mi ngi seen porno. la mu def xam doomu diw de mi ngi seen porno. voilà kumpa boobu moo lay poussé. nga ubbi xool ku doomu diw boobu boo nekkee wuyu moom la boo dul doomu diw sa yoon nekkul ne doomu diw bu ca dugg. ay doomu diw nekk nag. dañ la koy suggéré quoi. surtout nekkee parent boo nekkee nekkee parent. nga jekk ni ne sa doom de feeñ na ci site boobu. kooku mën na dem ndax doomam. waaw donc kooku kooku dimbali na ko. ndax wax na ko li doomam di def te doomam mi ngi ci kër gi dugg ak génn mu jàpp ne ku yiw la ko baax la am ku ñëw nag sa doom ma nga ah, kooku mën na ko seete waaye mi dul sama doom. am naa jamono li li sëñ di wax xam nga hmm. réew yi am na benn réew damay fàtte tur bi xaw ma euh, Cuba la ma fan. bi ñuy légaliser wàllu drogue ak yamba. Hmm. parce que buñ ko yombalee ba mu bari xëy na ñi bàyyi ko mën na am itam ndax gis nga oustaz wàllu wàllu sexualité ñu ko def mu nekk sujet bu tabu bari na lu mu yàq. li mu nekk sujet tabu si suñu kër yi bari na lu mu yàq lool. d'accord rafetul jackul, jaaduwul mais tey jii nii benn sa xel dalatul ndax bu fekkee da ngay toog si YouTube bi Facebook bi ñuy suggéré la par exemple roqee baal ma Birama Diop sur dama waa roqee li mu def foofu man damay dem pour vérifier yi far ma àgg fekk fa fekk fa louis ma àgg fekk fa <laughs> loolu dafay daal di problème léegi léegi <laughs> exemple léegi loolu loolu loolu lu mu doon bu fekkee ni mbir mi maanaam dañ la koy te doo ko da ngay am curiosité wu visiter xool lan moo fa nekk xam nga li muy tuddee tabu sax ah. léegi dafa weesu foofu léegi sexualité affaire personnel la ku nekk yaay gérer sexualité boobu dëgg la yaay xool ni nga ciy demee mm-hmm. xam xam nga bu dee tabu dañu naan arus ah, naa koo wax ak Louise wala roqee mm-hmm. waaye man maa ngi koy dund Mm-hmm. mooy maa ngi ci bu baax mm-hmm. nga xam ne bu njëkk bàjjen moo la daan waajal ci ni ngay def nga xam sa cër noo koy sàmmee waaye léegi réseaux sociaux yi ci ngay jànge caay-caay ak jubati mooy mooy mi ngi noonu rek premier bi daal état bi mën na ci dara te ko ci mm-hmm. mooy fexe ba sénégalais yi moom ñu protéger leen ba ndaw ñi kenn du ci am accès bu àggul foofu nag parent bu nekk am na sañ-sañ ci biir këram dañuy tuddee contrôle parental nga mën a fexe ba sa njaboot ñoom site bi moom duñ fa dugg ak site bu la neexul te loolu technicien boo woo fay ko 5000 mu defal la ko sa biir kër nga tàmbalee fa mm-hmm. nga tàmbalee fa lu ci nekk rek dafa am effort booy teg mu nekk tàmbali mm-hmm. ba keroog ngay jot ci leneen rek ñu crypté ko ñu crypté ko yooyu yëpp ñu ubbil la waaye tey bu ñu teree ne bu ñu seetaan yenn yi ñu jël sa téléphone bi xale bi mën a am connexion cent francs mm-hmm. dugg ci site yu bon yi te li muy jur ci société ak jigéen fekk na ma parcelle ku ñu dugal ci site bi boobu ñu ngi ciy liggéey mu yëg ko ñu dugal ko ci mu ñëw nekk nekk xale bu ndaw bu amee vingt cinq ans presque ci la yem mais presque àddunaam yàqu na mhm. àddunaam yàqu na ñu toogee di wax da ngay yëg ne kii nekkatu ko te kenn rek la doon bégal ndekk ñëpp lay bégal mm. loolu mooy problème bi mm. te kooku mooy benn victime boo xam ne teg naa ko bët mm. ñeneen ñi ah, ana fu ñu nekk tey ñu bari génn nañ réew mi ñu bari seen i sëy tas na ñu bari seen i mbokk yàqu na te sit bi moo ko waral am réew nag buñ la dénkee dara mën nga ci dara mm-hmm. tey réew ma nga xam ne fa lañ ko fa lañ ko héberger xam nañ ko ban serveur moo héberge site bi. nekkul Sénégal dana jafe nag ñu teg pression serveur boobu pour mu. waaye am na lu ñu mën a jaar ci wàllu diplomatie ba am na lu ñu ci liggéey. waaye ca dëgg-dëgg. danaa ne bis bi fa dugalee ministre ko réglé. Mhm. te loolu lañ jeexal bu ah, Sénégal ah, laa la wax gi man ah. leen bés bu ñu leen fa dugalee danañ ko réglé. Mhm. problème bi mooy dañoo bàyyi ñu mel ne Makhtar Sarr rek lañ fay dugal moo tax toog naan noonu ñu ngi ci jéemi waaye bés bu ñu fa dugalee ministre de la république mhm. danañ ci jóg bu boobaa mais dee ko seetaan nag site am solo la. déedéet yàlla tere parce que parce que il faut nga xam ba xam dongo yeeg gaa yeeg waa Daara jéeg. xam nga na ah, waa Daara jéeg mën a seetaan bokk na ci ñi tax site bi Sénégal xam ko doy na si. jërëjëf dafa mel ne la ñu dem <laughs> ndax ak madame santé ci plateau bi rek faaw ñu dem ci <laughs> am na benn kilifa nag lay nuyu ah. feebar bii di dermatite atopique ñi gën ko xamee ci ndoxum siti doon feebar boo xamante ni daa chronique waaye it yenn saa nga koy judduwaale ndax kat ci say waajur nga koy donnoo feebar bu ni mel nag ñi koy gën di nemmeeku ci xale yi di génn ci loxo yi ci tànk yi ci pomet yi ak tamit ci esel mooy feebar boobu di dal xale bu nu juddoo bay am ñaari weer wala ñetti weer mu doon ay picc yu sew di xasan nekk si loxo yi nekk si tànk yi nekk si kanam gi àndax nag okkatu bu metti xale bi am feebaru ndoxum siti boobee yenn saa yi day wokkatu wokkatu bu metti wala sax muy am ay ciriir faju bi ma ngay tàmbali ci lu ñuy duppee corticothérapie gannaaw si loolu nag nga war a utaat ay diw yoo xamante ni danga koy def sa yaram dafay doon feebar boo xam ne day law di continuer di dem ba ay 9 ans pour mu dem ba 12 ans nga dëkk nag bi leen jox ay corticoïde corticoïde corticoïde bu nu mënee trouver leneen moo gën léegi laboratoire yi nag ñoom jumtu ñu ay yeneen jumtukaay ay produit yu naan ay émollients. mu doon feebar bu metti lool boo xam ni xale bi su ko amee ci ay jafe-jafe lay nekk loolee la yaay yupp Salimata di xamal moom mi nga xamante ni doomam daa am feebar bu ni mel bi mu nekkee xale ba tey. Euh, yaram bi yëpp dafa defoon ay góom donc muy jeex bopp bi yëpp lal ay plaque sotti ndox. tànk yi day enflé ndox bi di génn day dem ba day xeeñ drap damay obligé di changer tous les jours bu tëddee bu jógee fépp day tache yaram bi yëpp day kole ku am feebarum doxum siti du sangoo ndox bu tàng du jëfandikoo saabu waaye it xel xalaatul muy diwoo diw boo xamante ni ab docteur digalu ko ko feebar bu ni mel nag ki ko am yaramam day wow koŋ ndax yaramam du mën a produire yenn ferñeent yi lu ci mel ni ndox wala gras bokk na ci ay digle nag képp koo xamante ni daa am feebar bu ni mel mu dem xooli dermatologue bu dee xale la nag ñu daal di koy yóbbu. ci un pédiatre élément bi solo madame la santé <laughs> donc voilà waaw Oustaz nous ndoxum siti euh, ñu koy wax dermatite ci muy feebar boo ne Sénégal 15 pour cent wu xale yi donc mu nekk feebar bu tenace bu ndax euh, chaque saison bu la a dal dalay dal euh, ñu nekk dëkk xam tamit ñu bëri dañuy c'est-à-dire que ku doom am ndoxum siti ci faju bi nga koy orienté que ci que bi ndax fajam euh, nga ko boo demee si euh, dermatologue wala si pédiatre dalay jox ay médicaments ay corticoïdes yu koy yu koy calmer mais en général chaque saison day ñëwaat maintenant nag am na euh, benn hygiène quotidienne boo xam ne moom nga war a am ba suy ñëw du graw wala du ñëw du du du génn ba def ay plaies euh, dermatite tamit dafa bëri façon genre dafay am ay type yu gën a graaw am ñoo xam ne ay boutons rek la leen def ay démangeaisons genre ñuy waxatu am ñoo xam ne day xëbal seen yaram bi mais am ñoo xam ne day def comme genre tap yu ndox. kuli. xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof donc am ay genre tap yu ndaw yu sew. waaw waaw voilà exactement donc dafa bëri façon façon yi tamit gën a garaawante donc euh, ndoxum siti dafa dafa dafa dafa gênant mais lu ma doon wax sànq Oustaz Mactar rek euh, xam naa ne Sénégal moom waaye ñu Oustaz Mactar ñoo ci gën a

ba 12 ans de 0 à 12 ans entre 3 et 12 ans day gëna fess sen yaram mais tamit amna na mag yoo xam dañuy am ndoxum siti ba légui mais newna ok oustad Birama. waaw Oustaz Makhtar di rafetlu liggéey bi élément bi rafet na trop te da fay bok ci yi nga xamne da fay toujours dañuy def ben taxaw seetlu oustad mokhtar buñ amé yu melni nii. mooy dañuy fàtte askan wi dañuy fàtte li ëpp solo di wax ci yoo xam ne amul solo yii nii moom la ñu war di waxtaanee. ndax booy xool élément bi ñu ndaw si nekk si élément bi li muy daj si doom ji moom li muy daj maanaam coono bu doom ji am si feebar bi moom dina am bu ko bu ni toll. Mhm. ndax may wax ne yaay xool doomam muy souffrir rek loolu boobu méttit kenn mu ko xam ku dul ku nekkul yaay. bon li nga ci wax nag loolu dafay dëggal rek parce que yonent bi dafa wax ne. kenn ku nekk fa nga nekk yàlla def na fa lay faj say jàngoro. moo tax ñi nga xam ne yàlla daf leen a may ñiy faj ci wàllu garab. ñi ciy faj nag ak xam-xam waxuma ñi nga xam ne dañ ciy jaar di wut alal di nax nit ñi waaye ñi ciy faj ak xam-xam dañoo am mission bu rëy nañu def cohabitation bu rafet ñoom ak ñi nga xam ne ñoom ñooy faj ci wàll wale pour ni mën a saafara yi la jàngoro ndax ndoxum siti comme ni ñu koy waxee wala am na am nañu koy tuddee gannaaw siti am toppum siti kuli agee ci aju yooyu noonu bu dee góor comme bu dee jigéen rawatina bu dee jigéen sax lay gën a compliqué ndax bu dee jigéen bu yàggee ci moom mën na ko xañ doom Euh, loolu euh, nekkuñu ay docteur wala ay fajkatu euh, cosaan waaye loolu dafay faral da faral di gis comme ni nga ko waxee da gis ñoo xam ne seen yaram bi dafay xubba sa yaram dafay daw yàggul romb nañ ci benn jigéen boo xam ne mag la danga naan kii naka la mën a def sax pour dund yaram bi dafa am comme li ñuy xoolee si jën bu ñu koy waas noonu la noonu la yaram bi mel tànk yi te kooku boo ko xoolee xam ne mënul dem hôpital mhm. ndax na mu mel dafa mel ni ku xaw àndul ak xelam ku xaw a feebar mais da koy xool xam ne si biir feebar bi dafa feebaraat yu mel noonu rek bu amee li ci aju rek mooy ña nga xam ne yàlla may na leen ñu mën ci faj ñu dimbale si néew gi doole yi ndax wax dëgg feebar genre feebar yi dañ koy sous-estimer mais lu métti la waaw te itam dafa nekk luy énervé nit dafay nekk xoolal tey boo toogoon rek fii ci plateau bi yàlla nattu la xasan dikkal la mm-hmm. imagine loolu waaw xoolal ki nga xam ne rek moom daf koy def quotidiennement bu tëddee yaa ngi ne ne chaque jour dafay changé dara dafay obligé di changé dara bu bu dee bu royee ko am ay góom dafay kolewu ci yaram bi kon yooyu yëpp dafay nekk yoo xam ne vraiment boo koy xalaat sax sa xol dafay tooy waaye di ñaan rek yàlla yàlla yombal saafara yàlla itam yombal ndax itam faj bi li ñuy faj mi ngi fi soriwuñu ñu xam ko wala ñu ñàkk koo xam mais soriwuñu kon ñi ciy gëstu itam yàlla yàlla may leen ba ñu def ay eh, yeneen yu bees yu ñu génn yu am am solo ba mën a dimbale ñoo ñi nga xam ne Euh, loolu daan na leen Oustaz Mokhtar. macha allah jërëjëf Oustaz Birama Fallou Sène. waaw euh, élément bi am na solo bu ñu ko dégloo dafay wane ne kon ndoxum siti feebar bu ñu sàggane la. Mhm. ndax nii élément bi waxee daa mel ni kon mi ngi feeñ ci xale yi te Sénégal senegal fii dañoo mel dañoo jàpp ne ndoxum siti moom feebaru mag la. Mhm. ndax bala ngay tudd siti rek da ngay jàpp ne mag muy wokkatu la wala mag moo xam dem na ba mu wàññeeku bu dee góor wala jigéen joo xam ne am na problème. ci wàllu am doom mhm. ndax yaram wu dem a dem ba soppeeku kon bu ñu ko teelee def ci xale yi kon day tax ñu bàyyee xel xale yi ndax boo déggee ma ne feebaru mag la ñu ci bëri bu leen dalee du ñu xalaat hôpital sëriñ sëriñ bi joxe ay reen la ñuy xalaat mhm. ndax fi mu ne ñu bëri boo demee sax yëgu ngi ne hôpital dina ko faj mhm. ndax dañ naan kon feebar bi feebaru Sénégal la feebaru Afrique la waaye du feebaru tubaab am na ci feebar yoo xam ne boo amee automatiquement da xam ne war ngaa dem pharmacie ndax man gisaguma ku am tey jii ndoxum siti naan day dem pharmacie wala muy jaabante hôpital xanaa mu dem a dem ba jàpp ne daa war a njëkke foofu bu demee ba ñàkk pexe nag ci reen yi lay mujj ak ci butéel yi ndax ci sunu mentalité dañoo dem ba gëmloo ñu ne ndoxum siti moom boo ko amee moom reen rek wala sunguf rek moo la mën a faj moo taxit ñoom it seen njaay day jar lool boo ñëwee li ñuy gën a jarle mooy garabu ndoxum siti kon léegi élément bi daf ñuy bàyyiloo xel xale yi kon dafa mel ni kon dañuy xool ba xam nit ki da koy judduwaale daa am fu mu ko jëlee wala da koo dab ndax bu ñu ko teelee nemmeeku ci xale yi bu demee ba màgg xëy na mën na bañ a indi ay complication kon li danger bi mooy ah, dañuy da dem ba nekk mag nga door réaliser door a gëm ne am nga ndoxum siti te demee bi nga nekkee tout tànk ca nga amoon jàngoro ji ko kon daa mel ni Sénégal mag ñi ñooy faju ci ndoxum siti mañ ñi gëm ne am nañu ko waaye yaakaaruñ ko ci xale yi effectivement d'accord jërëjëf euh, Cheikh Fallou Rokhaya yaakaar naa li ma si wax rek mooy que ni tey jii ñiy dox ñëpp mën nañ ne ñëpp am nañ ko ndoxum siti ndax bu dee si jigéen ñi la ñu ngi gis seen karaw yi ñu ngi dagg ñu ne ndoxum siti la dañoo am problème mu der euh, bu dee seen wey wey yi ñu ngi damm bu dee si góor ñi la tamit la même chose ñëpp ñu koy ñu dem sax ba ne feebaru ndono la nit ñi dañ koy doon doonante ak affaire yooyu noonu kon euh, war nañ ko jéem a xoolaat mais nag li gën a metti mooy ci xale bi nga xamante ne mënta wax ki juddu rek. feebar bi daal di ko daal di koy dal kooku déjà rek charge bu rëy lay nekk paj mi demeewul noonu bu yàlla na nattoo waajur wi mu la jox loxoom jotul ginnaaw yooyu yëpp dafay metti yaakaar naa ne war nañu ci gën a gën a waat bàyyiwaat xel eh, kilifa yi gën a jàppalewaat eh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa kër docteur ba ñu gën a mën a taxawwaat surtout surtout surtout xale yi ndax mag mi nga xamante ne màgg na ak moom mu gis ko xam ne ne kii mën naa dem faju ji mais xale bi nga xamante am 12 ans kooku yaakaar naa lim mënal boppam bëriwul ay waajuram ñu ci bari sax seeni activité yi waajur dafay mujjee dak ñu consacré lépp ci seen doom euh, te parfois da ngay dem ba faj ba sa xel yàlla def li gën euh, kilifa yi tamit nañ ci gën a bàyyi xel gën leen a tamit daal di jàppale te ñu moytu reen yeeg sunguf si ndax réew mi bari na koñ boo tourné di nga fa gis maaman buy faj te seenum faj la ci ëpp bu dul impuissance ndoxum siti la ak hémorroïde nañ ci gën a bàyyi xel

xale bu am ndoxum si te xoolal rek ci école wala ci classe. Mhm. day màgg ak complexe day màgg difficilement. ndax morom yi duñ nangu foofu moom dañ koy beddi ñooñu genre cas yooyu noonu te bëri na ay maladies tropicales yu xale yu di dund dund ñooñu ñoo soxla aide na ci gouvernement bi bàyyi xel. Mhm. ok xam naa nag euh, man bu mu fàttewu li ma ci woon. Mhm. am na euh, entre ndoxum siti ak kuli. waaw ak euh, toppum siti. ñaareel bi ñuy donnante mooy toppum siti mag ñi dañuy wax ne mooy toppum sët ya maanaam day topp ba ci say sët ñu ne toppum siti boobu day nekk ci biir yàpp wi mooy gën a xóot ndoxum siti day nekk ci diggante deret ji der bi ak yàpp bi man a dem nag ba tàmbalee manifester ka mën naa bañ a manifester mën na mën naa am ko am ndoxum siti te du feeñ dara ci yaram léegi na suy génn ci yaram bi di manifester ci lay dem ba jëru li ñuy tuddee kuli nga xam ne day tàmbale léegi am ay bouton di toj ngay wokk muy nangam am na yeneen i tur tamit yu ko amal hmm. waaye daal lu ci manti am ku ko yor daan nañ ko wax muy moytandiku di lekk gerte daan nañ ko ko moytandikuloo rawatina ñun suñ mbokk yele ca saalum mbaxalum saalum hmm. dañ la koy moytandikuloo hmm. lu jëm ci gerte keccax zaari mel noonu ba ci jën yabo mhm. yi dañuy wax ne ku ko yor boo na lekk yabo yi moom wu yaay bu ñuul ngay dégg jën bu ñuul mhm. jën bu yooyu yooyu yëpp ba ci naan soow dañ la koy moytandikuloo ba ci yàpp wu ñu lakk ki ko yor yàpp wu ñu togg moo gën waa yàpp wu ñu lakk maanaam boo koy traité di jëfandikoo yi da ngay sonn mais doo am résultat mhm. il faut nga bàyyi soow il faut nga bàyyi gerte il faut nga bàyyi yàpp wu ñu lakk il faut nga bàyyi jën rawatina yaaboy wala jën yu ñuul yooyu noonu mhm. xam ne daf koy yee yooyu yëpp da nga koy bàyyi mhm. mag ñu ne daan nañ digal ko ko yor muy jël reenu senjeñ ak reenu dànq mhm. euh, ak reenu siddéem ndax ay antibiotique la euh, di ko jël euh, defe naa mbokk yi la ca jës am nañ ci reen yu ci baax nañ koy jaay léeg ba ci bus yi mën na ci dara waaye yooyu yëpp nay fekk yii ñu la wax nag nga bàyyi ko carrément traité wu ba mu wér ci yow ndax baaxul day topp di di yee mboolem jàngoro jum fekk ci yaram mhm. ndoxum siti daf koy yee mhm. rawatina topp ma gën ci yées bu demee nag ba yegg ci kuli moom mhm. su boobaa beneen traitement la bu bokkatul ak ndoxum siti su ma fàttewul li ma ci jàngoon ah. loolu bokk na ci seen. waa lii waa daara ji seen ah. seen. yi ngeen di ko joxe yooyu kon lu ñu wax ngeen wax addis indi aay yooyu. Euh, wala affaire mu si typiquement ok ko yi bokk na ci mooy nga ñaan yàlla musal la ci yeneen bi mhm. danaan mhm. ñaan yàlla musal la ci feebar bu yàq sa der mhm. yeneen bi daf ko daan ñaan sallallahu alayhi wa sallam baras ak jusaam am day dem ba yegg ci ngaana loolu yëpp yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan ñaan yàlla musal ko ci loolu ci bagaasu daara ji la d'accord daara ji bëri na waaye daara ji bëri na ñuy wokkatu de mbaa <laughs> médecin yi dañuy fel yi la fel yi ak matt yi. moom loolu moom bëriwul ci xanaa wokkatoo yooyu luy waa daara école yi. non man man fii laa far de. Ah, oui ma foofa man fii laa far. oui ma ah man instant bi da non dama leen soxla nii instant bi waa logique ñooy jël bigi di dugal ci bopp yi. <laughs> waa daara gi daara ji moo am fel classe amul fel daara ji moo am matt. déggoo li ma la wokkatu. fi nekk sax am na lu ñu benn programme bu ñuy waaye tëral nii pour jàppale waa daara gi ci wokkatu bu métti bi daa métti nag vraiment. boo ko tàmbalee nga dem ba nekk mag. waa logique waa logique daal waa logique daal la ñuy wokkee waa logique daal am ay abri provisoire ñu dem dellu si <laughs> <laughs> waa waa ñu dem dellu si dugg ngeen jëf euh, ñu sant leen bu baax a baax gërëm leen euh, seen waxukaay bi nag fay fay kii daa soj xam naa ngeen jox ko comprimé tuuti mooy gën di dégg dégg ngeen <laughs> waa régie <laughs> xam naa ci hypo hypocrisie ah. euh, la ñu la ñu nekk uh-huh. muy muy lu doy waar uh-huh. arab yi di ko tuddee a nifaaq uh-huh. wala fi di ko firee naafeq ak naafeq jikko ju bon la nag ci nit ci tënk rek mooy kuy wane lu mu gëmul ah yaquluuna bi alsinatihim maa laysa fi qulubihim mooy lim lay wax ci làmmiñam bokk la li mu gëm ci xolam dafay tricher mu mel ne lu doy waar la roq ya Euh, si hypocrisie si langage bi nga xamante ne moom lañ koy utiliser. Mhm. mooy di jouer indo di dawal kaboy. Eh, mhm. xam nga indo yi ñoom seen lépp dafa tënku si lu mbëggeel la. Mhm. li ma lay woon loolu moo nekk mais fekk na ci suuf yaa ngi kaboy kaboy bi nag mooy guerre bi la. lu ma mën a def ba yàqal la rek loolu la. donc bu ñu ko ñëwee ci langage yu jeunesse noonu lañ koy loolu lañ koy waxee hypocrisie bi. mooy di. yaa ngi yaa ngi di dawal kaboy hmm. ci suuf maanaam yaa ngi won nit ki lu baax ci kaw mooy indo bi kaboy bi mooy ci suuf yaa ngi geer ak moom hmm. maanaam li olof di wax naan bañ weex na waaye dereta ko lal ki lay ki lay ki lay ree wanu la lépp du reetaan yëpp ñooy reetaan yi nga xamante ne ñoom ñooy la yéene lu baax mu doon nag li nga xamante ne dafa am ci société sénégalaise nañ ko wax tëddee la société sénégalaise dafa hypocrite dee droxé nañ bàyyi nañ ko waxta dee man nañ ko waxta dund. <laughs> nañ ko waxta dee <laughs> waaw nañ ko waxta dee doo ko fekkee. waaw nañ ko ko bi buñ ko jëfee baax na buñ ko jëfeewul baax na mooy dañoo nekk ci société boo xamante ne man li ma koy waxee mooy société Sénégal dafa hypocrite dafa ingrat dafa égoïste man loolu laa koy parce que nit ki nga xamante ne yaa nekk ak moom ba ci nit ki nga xamante ne yaa bokk ak moom sax juddu bokk ak moom biir bi ngeen génne bokk ak moom fi ngeen liggéeyee kanam gamu lay won bu dul nit ku gëm yàlla dëgg day joué ñaar maanaam dalay ree Louise mi ñoo bokk fi ñuy liggéey Louise macha allah mu ngi joxe résultat bu ma dajeeg moom ci nit ñi taxaw yëpp ma ne ko félicitation est-ce que est loolu moom la société bi di doxee instant bii nii nit am xam-xamam di ci def lu baax nga yéene woo ko nit am mën-mënam yàlla may ko ko yéene woo ko Euh, boo nekkeek moom ne ko yow yaay gongo bu ko wanee ginnaaw nga yekk si deram bi lu mel ne xeme loolu moom la ñuy dund jamono ji moom la ñuy dund ci biir kër yi moom la ñuy dund ci liggéeyukaay yi moom la ñuy dund ci mbedd mi mhm. finalement da ngay dem ba ñëpp da nga leen di sol ci benn saak parce que doo xam ban kanam mooy kanam gu baax gi wala ban kanam mooy kanam gu bon gi mhm. nit dina la jël taf la ci boppam di la fekk na am la mun ne la ca nekk ca biir xolam bu ko xam mhm. donc mu mu doon loo xamante ne parfois dañu koy coller ñi nga xamante ne ñooy jigéen ñi ndax euh, buñ ne jataayu téesante am na ñoom lañ ci njëkk a xalaat buñ ne diw yekk na ci diw diw xas na diw jigéen ñi lañ si njëkk a xalaat ñu dem ba kolee leen ko ne ñoom euh, ay naafeq lañu liñ lay wax gëmuñu ko mhm. mais jamono ngi dox waaye bal bi tey dafa mel ni dafa tourné ndax euh, gis nañ ci góor ñi mhm. ñu ñëw fekk si ko ci tey jii li ñuy wax li jigéen ñi daan bañ démb moom la góor ñi nangu tey mooy jikko bi nga xamante ne ñoom dañ koo jël fekk si fekk si si jigéen ñi muy naa fekk mm-hmm. ak tamit yàqante ak tamit tuumaalante ak di ree nit gëmoo mm-hmm. loolu moom moo am lan la lan moo ko waral fan la jóge mm-hmm. man oustaz damay wax ne man nit ku ma gënta jege yàlla nit ku ma gënta xam yoonu yàlla ñeewuma la sama yoon nekkul si yow waaye tey jii nit ñi lan lan mun naa fekk gi ci lan lañ koy wane ci kii am amam kii xam-xamam kii mën-mënam nan laa mën a def ba yàqal ko nan laa mën a def ba tey moom nit kii daal di taxaw kii nan laa mën a def ba doomam ji du tekki kii nan laa mën a def ba du avancé ma ñëw di la ree jege la ba xam say point faible yépp dem jaar ci loolu yàqal la tey nit ñi loolu la ñuy dund mu nekk tey crise de valeurs yi ñu fi doon waxtaane yooyu yépp dafa dellu siwaat ci biir naa fekk ndax dañ daan gis bu njëkk bàyyi daan na am ñett ñeenti soxna. ñoom ñëpp daal di am. juróom bu xoolal bu doy waar bi. waa gis nga. ñu ngi nuyoo mais ci ginnaaw mi ngi làq paak. mu ngi noonu li mooy naafeq dëgg. waaw waaw nga nangoo ko sa ndeyjoor bi reyee ko sa càmmoñ bi loolooy naafeq dëggantaan bu njëkk ci kër yi bu ñu gisaan bàyyi daan na am ñeent. ay ñeenti soxna soxna yooyu am juróom ba juróom benni doom juróom benni doom ñoom ñëpp benn baat la ñuy wuyoo ku gis sa moroom yéene ko jàmm mais tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk benn biir ñoo nekk ay noon ñoo nekk première noon parce que mhm. gisante wuñu ci seen biir te léeg yaay yi dañ koy def bàyyi dañ koy def ndax favoritisme da ciy am ndax doom dina judd ci famille jiitu amul dara keneen ñëw am dara ñu jël ko teg ko ci kawam bu boobaa naa fekk day am te waajur yi ñoo teg naa fekk googu noonu mooy jur say doom te yemalewoo la ñoom tamit ñu dem ba doon ay rival mhm. kenn dootu si gëm sa moroom loo wax sa moroom bu boobaa du doon du dëgg si yow tey ñu dem ba di ko dund di ko dund ci këru liggéeyukaay nit dina embauché nit ne ko yow la yow la nangam ak nangam dinaa la defal nangam dinaa la defal te du ca def dara bu keneen ñëwee bul xam ci yenn condition la ko jël la mu la diggoon te saay boo ko rombee mën na la yaafi mën fekk na araab mu ngi lay rey ci suuf dégg nit ki di nga nekk ak moom amandoog moom promotion du la ko yéene di lay ree naan la yow la te fekk na mu ngi ci suuf di def li muy def da ngay xëy xëy rek yenu say daal wala nga xëy xëy rek jóge fa ñu naan ana lan moo ko def fekk na bu ñu seetee ba ci biir ki ko doon ree moo def loolu hmm. donc loolu yëpp mu ngi ci biir société bi tey lan lañ war a def ba taxawal ko ndax mu ngi gën di wéy di gën di law di gën di dem état bu gën a romb gën a ñàng bi nga xamante ne moo fi amoon hmm. bu dee si diine lañu war a dellu xool ko jot na bu dee dañoo war a ndëppal réew mi yëpp jot na bu fekkee ne tamit dafa laaj leneen jot na ndax mu ngi gën di bëri te génération bu gën di ñëw di si gën a dund lu xamante ne ni lu lu wàllum yées la mhm. li ñu doon wax sànq ci wàllum kocc ak seen prénom mhm. loolu hypocrisie mënu ko wees ndax ñaari copine ñooy ànd ñu am problème tey ma jël li nga xamante ne moom laa la xamal dem sànni ko ci biir site bi dem jox ko boroom site bi mu def ko ci xam nga naa fekk gënu ko wees te pourtant yow yaa nekkoon sama meilleure copine mhm. parfois lii jàll yëpp ay nit ñi seen i meilleure copine ñoo koy dugal xam nga ne naa fekk gën ta machine parce que nit ki booy ànd ak moom muy neex muy naqari ak quel que soit alpha lu ngeen mënti jote li nga ko xamal war nga koo téyal war sa xal waru laa mën a yóbbu ba rek tey erreur am na nga jukki lépp jox ko ko mais tey dañoo dépassé loolu mhm. tey nañuy ànd nekk les meilleurs amis du monde mais erreur bu ndaw bu am suñu diggante rek maa ngi xaar erreur boobu am pour ma mën laa teg si place publique bi weer la xaawi sa sutura ngor amatul dignité amatul rusutkaay amatul jomb naa ko amatul donc tey société sénégalaise loolu lay dund oustaz. doy na waar doy na waar kon nañ delluwaat am ngor am jom di jomb. Mhm. ñu seetaani benn élément balaa ñoo wéyal euh, régie élément. tane ma ci <laughs> maanaam lu muy wax nii. doy na waar trop dafa mel ni eh, ku góor ki. dafa nekk prison xam naa ndaw sam wala coroom wala jabaram seet si ko si si kaso bi. bu ko dem xam naa jigéen bi am na émotion mi ngi jàpp mi ngi jooy moom tam ko ne am na émotion pendant que émotion bi moom gëmu ko. loolu comme mi ngi jooy moom tam mu force jooy di jooy bu fort ba ñu koy téye bu ko demee rek mu arrêté waat jooy ci saa <laughs> donc pour dire que eh, ñi naxante daal. Mm-hmm. nax la. kee moom mi ngi jooy jooy bu dëgg. bu mm. sincère ci moom ndax yërëm nañ kii nekk kaso. Mm. kii nekk kaso moom loolu ferñante wu ko sax. Mm-hmm. doy na waa torop. Mm-hmm. waaw mën nga ñëw looy. participer ci thème bi ci hypocrisie hypocrisie dafa doy waar man damay bëgg. lu may euh, lu ñuy développé rek ma contextualiser ko tuuti. Mm-hmm. Euh, ñu ñëw ci situation politique actuelle bi. gis nañ fi ay candidats yuy appelé au boycott. ñoom ñi appelé au boycott man damay gëm ni ñi appelé au boycott yëpp hypocrisie la soit y a deux choses soit daf leen di leer ni bu ñu demee duñ ci am ndam ñu bañ gàcce bu gàtt bi bëgg a boole gàcce bi nekk gàcce commun parce que tamit nga préparé ay at wala ay mois ci benn jongante benn situation ñëw ngay da ngay boycotté te yow leer na la ni boo boycotté tamit du tere élection yi am. foo mm-hmm. mm-hmm. man daw la. donc euh, na Sénégalais yi xool bu baax a baax lu ñuy lu ñuy def te bañ a topp intérêt wu benn nit xool intérêt population bi yëpp parce que tamit bu ñu nangu suñu suñu leader politique yi dañu dugal ci ay guuta parce que tamit euh, euh, vote jiitum réew dafa am solo trop pour man jour boobu nga toog rek sa sa loxo bu ndaw bi ruujul noo gàcce bu rëy la lu mun mënta am même fekkoon ne benn candidat rek moo taxaw ñu war dem vote wane suñu lan lañ fan lañ bëgg a lañ bëgg mu jiite suñu réew lan moo ñu ci neex génne lu nekk suñu xol mais buñ fi xoolewee ba boycott am fi mooy musiba dal nañu. Mm-hmm. benn aspect bi mooy lu euh, roxee wax sànq mooy euh, hypocrisie euh, dañ ko dañ ko tappal jigéen ñi mais hypocrisie crési Oustaz Makhtar day ñëw ba ci biir sëy yi. Mm-hmm. da ngay gis góor boo xam ne day toog fu ñuy jëwee jabaram. ku ñuy jëwee jabaram. ku ñuy jëwee jabaram. maanaam. maanaam góor gi day nekk ci day day xam ne jabaram ak waa këram yi jubawuñu mu génn këram dem waxtaani kër kër kër waajuram toog ay waajuram di jëw jabaram muy alimenté jëw bi est-ce mm-hmm. waa a ah, moom kañ moom dafa xaw a sikk nag. Mm-hmm. lii ak lii ak lii. pendant que foofu position mooy défendre jabaram. Mm-hmm. su sikkalee jabaram ba pare bu ñëwee si jabaram. ne ko ah boo déggee ñi dañu lay waxal xam nga jaxase mi foofu. mais hypocrite weesuwul euh, ngay fekk ñu jëw sa mbokk nga noppi ci. te loolu moo am Sénégal. dangay ngay nekk nit waaye ngeen nekk suba ngoon gu nekk bëccëg mu taxaw di assister fu ñu lay jëwee te noppi. man boo fekkee wee sama jëw boo ko fajul boo ñëwee bu ma ko wax. léeg sax moo cay doole léeg sax moo ciy dolli. Mhm. donc pour dire que ne hypocrisie dafa touche. dafa laal société bi foo laal boo demee ci sëy yi boo demee ci liggéeyukaay yi boo demee ci relation amicale yi boo demee ci politique bi foo mënta dem nit yi sincèratuñu ku nekk sa intérêt bopp ngay jiital nit sax am na ñoo xam ne mën nañ jiital seen intérêt bopp te duñu lor keneen nga jël àndu jigéen foo gis léegi dañuy da ngay naan euh, motul ma àndu jigéen dangay gis ay jigéen yoo xam ne yu ci mel ni Louise dañuy préféré am benn xarit boo xam ne góor la sax am ci benn moo gën am ànd ak ay jigéen yu bëri. te xam ne euh, bëggante bi day am jalousie day am fiirante day am wax bu ñaaw te kenn du ci nangu assumer responsabilité ne lii maa ko wax day am fiirante loolu mooy hypocrisie te loolu moo engrainé suñu société jamono bi te te te dafa dafa dafa doy waar parce que fu mu mën a yóbbu relation moo doy waar. ndax hypocrisie tamit moom ku xam hypocrisie rek mooy jaxase la ak ku mënul nangu ay responsabilités ndax ku hypocrite bu nekk du wax dëgg hypocrite bu nekk day mën jayaate mhm. léegi nag hypocrite lan moo koy lan moo koy faj mhm. mooy nangu nangu lan nangu de mooy jullit day nangu jaam sax dama wax jullit sax daanaka mhm. général doomu aadama day nangu situation day nangu lu yàlla dogal dogal ku nangu lu yàgg yàlla dogal rek doo nekk hypocrite mooy lan diw am na lii man aw ma ko naa nangu ne lii la yàlla dogal te ma liggéey lu tax ma am ko waaye Sénégal ngay gis nit taxaw benn Louis bu génn. Mhm. dawal oto bu rafet. Mhm. ñu ne ah franc-maçon la. Mhm. wala day jaay drogue. wala ah mi ngi ci mbaraan yi. <coughs> te yow leer na la leer yàlla ni daf ko liggéey. est-ce que mbaraanoo tamit. non mais non dama leen bëgg expliquer rek. <laughs> que ni loolu yëpp yàq la xeetu yàq la xeetu soxor la. Mm-hmm. quand je bu ma waxee Louise du sama personne bi moo important. Mm-hmm. Mm-hmm. mais exemple la rek pour dire que. nit du soxor du loo am rek euh, kenn xool ko ne. xam dara leeru ko ci. mu dëkkal ko feneen fu mu dëkkul. nañu mhm. moytu bu baax te <coughs> gi da ciy bëri. Mhm. d'accord jërëjëf euh, ñu sant ko baax Louis gërëm ko alaaj euh, Hadj Fallou waaw loo ci participer. waaw indi baat bu rëy baat bu mat a bàyyi xel. baat boo xam ne dafay réer ci biir nit ki dañ koy seet ci diggante biti ak biir parce que malheureusement nit ñi li ñuy jàppante di ko jàppe nit biti rek la ñuy jàppe mhm. ndax jàpp nañu biti rek moo mat a taaral. Euh, te am na loo xam ne nit ki biiram fii ak jëflantewu leen fii ak jaxasawu leen doon xamante man ni naa feq Louise wax na ko léegi kii naa fekk moom du wax dëgg day poose mbaax day poose yiw te gëmu ci dara bi poose xewee ba léegi la sunu valeurs yi commencé dégradé ndax bu njëkk lépp dañ ko daan saxal daan ko suuxat kii naa fekk foo ko fekk du dëggu kon contraire wu naa feq mooy dëggu mhm. nit ki bu dëggoo du naa feq lu situation bi ñàng-ñàng dafay constant day xam ne am na lu muy bëgg am na lu muy bañ am na lu muy jomb waaye léegi problème bi posé mooy nit ki bu demee bay naa feq jikko la wala jamono la am na xam da koy tàmm da ngay tàmm naa feq duñ naan tartif koo xam ne dafa faux koo xam ne man moom apparence am rek duñ ko ko jàppee moom xam na ne mi ngi nax nit ñi te boppam lay nax léegi problème bi risque bi nag mooy ndax nit danga koy jàppee li mu la wan muy biteem wala biiram ngay dugg ba ci biir ba xam ko daam ñoo xam ne seen biir ci mënoo cee accéder ndax lañ lay wan ci biti dangay ngay dégg ñu naan ah julit du naafeq mm-hmm. mooy am na nu mu war a mel am na ay valeur am na loo xam ne moom la war a doxalee bu naafeqee kon génn na ci ak dëggu doomu aadama du naafeq mooy nit da ngay gore comme ni mu ko waxee sànq bëri na fu ñu koy gis koo xam ni da ngay dem ba ci biir xam ne kii naa fekk la maanaam gëmul dara. Mm-hmm. moom ragal yàlla amu ca amul lu muy rus amul lu muy jomb moom jàpp ne ne kon na na wan nit ñi ni ñu ko jàppee rek fekk lu gëmu ko te li muy yàq rek bëri na ndax xam nga ci titre bi. ci thème bi Matar dañoo wax ni. Mhm. ndax naa féq mën naa yóbbi nit ki fen mhm. ah, ah kay ndax fen lay dunde fa la jëm kay sax waaw la jëm. Mhm. mooy doon matière am bu fekkoon lu muy dunde moom lay dunde ndax ñàkk diggu gi ci moom. ba mu nekk naa féq kon aw fen la. kon fa mel ni kon léegi nit ñi mbaadu kon du ñuy moytoonte ngir mucc ci naa féq te nit da ngay jëfalanteeg moom waaye li doy waar muy nit ki lim lay wan bokk lay nekk ci biir li ñu naan il faut pas se fier aux ndax nit ki lim la war rek ci nga war a yem. ndax man au moins jotu di topp mataar bay xam biiram. Mhm. kon li moom laa koy jàppee. Mhm. kon kañ la ñuy mucc ci naafeex. Mhm. kañ la ñuy mucc ci naafeex. muy question bu ama am solo. Oustaz Birame mu mel ne naafeeq lu doy waar la buñ ko dugalee ci cadre diine ndax yàlla bañ na ko boo tuddee ko saar. muy suuratul munaafiqiin. saar spécial la yàlla wàccee di wax ci thème bi euh, muy lu doywaar <laughs> yàlla mi bind nag moo xam dëgg-dëgg naafeeq. Mm-hmm. idaa jaakal munaafiquuna ba laaya ji jeex mm-hmm. mooy li nga wax léegi yàlla fa mu jeexalee buñ ñëwee ne la dañoo gëm yàlla dañuy jooy yàlla ne dañuy fen mm-hmm. maanaam du koy wax dëgg lim lay wax du dëgg mu def du dëgg gëmu ko geste du dëgg wax ji du dëgg yàlla la kaasibuun dañuy fen <laughs> muy lu doy waar noonu ñuy dëkkalee ci loolu oustaz xam naa pour la première fois ma d' accord ak waa logique dëgg yàlla te ñoom du début à la fin <laughs> Euh, juste rek xam nga oustaz euh, mi ngi wax ne nit ki mënoo koo xam yéen bi daf koo wax nee na law taka shaftum maa tadaa fantum yow man mii man laa wax de man Birama Diop mii am na loo xam ne boo ko xamoon si man du doo boo ak man balaatoo lu leer def léegi nag oustaz naa fekk moom euh, hypocrisie lañ koy tuddee xaw ma dafa yàgg de nan xool diggante Adam ak Iblis xam nga hal hal adullukum ala sajaratil xuldi wa mulkin laa yablaa waaw daf ko dafa ñëw wan ko mbëggeel waat wa qaasamahuma waatal ko ne ko yéen rek laa sopp góor gii fa mu jëm ak yéen baaxul aadam dégg ko balay xew-xew mais li ci xaw a garaaw le oustaz mooy démb nit doon na def sax sew-sew ala caay-caay fekk baax la bëgg mais léegi tey jamono ji affaire dafa inversé wu exemple bi ma si joxe uxtulu yusuf aw itraxuhu ardan yaxlu lakum wajhu abikum wa takunu min baadi qawman saalihin ndax boobu seen papa jox na yusuf attention boo xam ne ñoom amuñu ko jox na yusuf valeur boo xam ne ñoom gisuñ ko seen bopp ñu ne léegi nañ ko liquider comme quoi que bu fi nekkatul seen papa dana mën a xool ci ñoom pour ñoom danañ mën a baax ci seen bëti baay mais léegi li si xaw a doy waar mooy li ko indi nag mooy xam nga sànq Lewis wax na ko wàllu xaritoo oustaz gi nga xarit jullit warul am xarit déedéet déedéet kenn wa kenn wut loowu la xarit sallallahu alayhi wa moo gën ñëpp daf ne su ma doon wut xarit kenn laay def xarit muy Abu Bakr waaye sama mbokk la sama àndandoo la parce que wolof da koy wax xarit sama xaritu benn bakkan ah xaritu benn bakkan la kay benn bakkan bakkan soo àggee sa kan ma kay moo war la gannaaw kon du sa xarit mag ngi ne leen xarit boo ko doon wër mooy boo wutoon saako guro nga jël ci benn doom xar ko lekk ko wala nga sànni ko booy wëraat moroom ma ci biir doo ko ca fekk te ko amul. maanaam li ma bëgg a wax mooy Oustaz Makhtar fii ak amuloo koo xam ne bis boo juumee mu jàkkaarloo yow ne la lii nga def du dëgg ànduma ci ak yow. soo jaaree si yoon mu encouragé la jàppale la. waaye xoolal léegi tey commencé la ci président ba si suñu kilifa yi ba si suñu kër yi ba si suñu bëri bu liggéeykaay yi ana kan nga siy gis. koo xam ne am nga ci sa entourage ku lay wër ku lay wax dëgg koo xam ne yow mii xam nga lii dëgg la. alxuraan wax na ko nee na laa tattaxidu bitaanakum bitaanatan min dunikum boo nekkee kilifa boo nekkee responsable fexeel ba sa entourage bu mu lay yées. loolu mooy waral hypocrisie mooy nga am koo xam ne mi ngi na la lépp doxul te pourtant lépp doxul. yow mi naan la lépp dox ne yow xam nga ne lépp doxul mais lu tax nga nangu ko parce que doomu aadama moo bëgg di dégg lu ko neex doonte ne baaxul. xoolal oustaz baati baatu baat yooyu buñ ko firee si wolof wolof dafa naan la njëriñ loo fekkee loolu hypocrisie mënu ko weesu. sama bopp ma la gënal lu bañ naa la loolu hypocrisie mënu koo weesu bañ weex na waaye deret ko lal loolu borom xel mu ñaaw a koy wax ndax alxuraan sant la loolu d'accord nit toujours da ngay war def da ngay moytu borom kilifa dafay dafay dafay nekk ku ku kuy ku ñaw da ngay ñawal sa njortu kuy waggar kuy waggar di bàyyi xel ndax àdduna bu doon nag yatu ñaaw njortu yatu ñaw njortu lañ koy sàmmee xam nga sama bopp ma la gënal du bañ naa la te alxuraan wala boog yonent bi ñuy wax ne moo ne am oustaz Maxtaar nga baal ma man boo gisee toujours damay moytu xadis te ñun ñëpp dañ koy moytu ah ñun ñëpp oustaz Maxtaar ak oustaz Hadi Niass ak oustaz Alioune Sall ak keneen ku dul ñoom xamul tax ñu di ko moytu ndax xadis dafa nekk euh, bërëbu jàngukaay bërëbu nattukaay bu sew boo xam ne yoon wa dafa gudd bu bëri ay galgal yu nekk ci biir mais dañuy wax si benn xadis bu ne yonent bi moo ne kenn si yéen du lu dul bëggalul mbokkam li mu bëggal boppam xadis mu nekk xadis bu wér boo xam ne ñëpp dëppoo nañ ci ak wéram waaye nañ xool jëf gi ana kan moo ko fi jëfe tey jëlal benn nga bëggal sa bopp nga bëggal sa li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa mbokk ñun ñii kenn ku ñu nekk tey fa nga nekk boo sañoon yow yaay nekk star ba après nga ne yow jullit nga ndaxte yeneen bi daf ne naafeq yii nii bu dagale si moom nekk na naafeq piir boo ci amee benn am nga benn jikko naafeq ba baa nga koy bàyyi koo xam ne waaw naafeq. jox ñu ñeent yi ñu xool suñu jikko yi. ñeent yi mooy koo xam ne lu bu waxee lu mu wax kàcc la. ida xadasa kaza. mooy koo xam ne kàccam sax kàcc la. xam la mooy koo xam ne kàccam kàcc la mooy man ma ñëw ci yow. créer benn histoire la ko nettali ba sa yaram daw pour bëgg xam yow sa dëgg yow. ndeysaan. pour bëgg la ko siiwala loolu ku jar dafa jar bàyyi xel. Mm-hmm. rawatina jigéen ñi nga xam nekk ci sëy. nit dafay ñëw ci yow wut loo xam ne aw sos la wu mu wutal mu bëy ak tubb ak tubay wax ko ba mu jekk ngir bëgg yow nga wax sa dëgg mu ne laa mu féexloo loolu nag xelam dal. koo xam ne boo waxee kàcc. nee nga ma wax la waaye wax la waaye koo xam ne heure bu la joxee rendez-vous. da koy da koy raté. waaye bu ko joxee rendez ko jàppee rendez-vous heure rek nag. mooy koo xam ne lu mu la dig dalay nax. heure boo ko yaakaaree mu tas sa yaakaar si intention boppam. ndax tas yaakaar nag nit mën na tas yaakaar fekk buggul woon tas yaakaar. waaye yàlla dogalu yàlla moo dóor moo dal ci kawam yaakaar tas. وإذا وعد أخلفه وإذا وإذا أتمنى خانة موي كو خامني ال بوكو وولو با دينكو لي غنا شيرشي ياو مو وور لا سوكو جوخين سا كادو دوكو ريسبكت لولو لولو موم ريومي دك بي سوني ريومي سي سينيغال موم فيلا فيلا فيلا فيلا بو فكاي ني موم امنا او تانك اي تانك بن تانك موم ميغي سينيغال ني جيت نييب دا ني نخ ني جيت سي دينا جي دا ني ني جيت سي بولوتي بي دا ني كوكو واخ موي لي ام كوكو واخول موي لي ام ñii jiite si politique bi dañuy nax moom loolu moom jëlul jeex. bët tegu na si. waa ñii jiite si diine gi dañuy nax nag loolu ay étape la yu ko mën a jàngatee xay na buñ ci àggee danañ ko jàngat. beneen bi nag moom mooy ki nga xam ne way daa xaasama fajara mooy man ak yow bu ñuy xuloo duma yem ci yow damay dem bay tudd say way jur. ah te buñ la tooñee yow yaa ma saare kay naa fayu ci yow. kon yooyu ay mbir la yoo xam ne oustaz. dafa nekk ci société bi samp fi tànkam. Mm-hmm. Euh, léegi nag. lan moo ko waral tey war nañ ko mën a xam. lan moo waral hypocrisie lu ko waral. soxor bokk na ci. parce que nit yàlla <coughs> suñuy baaraam yi ñu yore sax ñàkk a tolloo gën ñàkk tolloo mais xekk ma la dafa am njëriñ. bala nga ko doon xam tey jii ñi amputé ci benn maar day taale boobu boobaa da nga xam ne baaraam bi li muy gàtt gàtt am na fonction ci loxo bi boo xam ne beneen du ko ci am. Mm-hmm. kon yàlla bi mu bindee ñun kenn ku ci nekk mu am fu mu la teg. Mm-hmm. dafa am lu tax mu teg nga fa. léegi nag bu ñu xëy gi Oustaz Makhtar bi ñu duggee ci gaal gi. am koo xam ne. li mu bëgg rek mooy moom mucc moom mucc. mais li nekkoon faratam mooy mu fexe ba gaal gi mucc parce que baal gi gaal gi bu muccee moom dina mucc ab ay bagages mucc. mais dangay toog ci bànqaas bi di ko gor. te xamuloo ne bànqaas bi même bu fàqee. dana am yu dul jariñu de waaye yaay njëkk a loru. kon loolu tam lu jar a xel cest à li mu bëgg a wax mooy gis nga doomu aadama li gën am solo ci moom moom mooy jikkoom. te dafa am ay baat yoo xam ne. nga la wax waxloo te yéen yéen oustaz yi am ngeen si rôle bu am am solo nag ndax temps yi nii gis naa jigéen ñi benn vidéo bu ñuy partagé ci oustaz yu defantekat yi na ma baal nag na baal. mais ni muy defee li muy jàngalee loolu yéen bi santaanewul loolu. yéen bi santaanewul ñuy ñuy propagé gis nga nit ñi koo gis am na lu ñaaw lu nekk ci moom lu ko naqari lu ko métti loo xam ne buñ ko buñ ko permettre mu koy génn rek dafay tukkal àdduna. parce que di dem ba naan ku mel nangam dafa soxor loolu erreur la loolu erreur gënu ko rëy wax naa ko feneen dama koy waxaat fii Oustaz Makhtar na ko yàlla bind dafa sew ngaam dugg mu yooy te xol ba dafa sell lool kon nag bul ne koo gis mu sew ngaam ya dugg rek xamal ne dafa soxor loolu heure loolu tooñ mënu ko weesu am na koo xamante ne bii mel na mel na nu jekk boo ko xoolee macha allah bitim rafet na mais moo gën a soxor soxor hmm. kon yooyu ay mbir la yoo xam ne di ko wax boo nekkee jàngalekat boo nekkee ku ñuy déglu toujours da nga war a fexe nit ñi. la nga xam ne sax moom mooy génne rage bi nekk ci ñoom nga fexe ba mëdd ko. d'accord waaw njur gi nekk ci nit ñi nga fexe ba suul ko waaye noo ngay jël di leen yokkal yu nga xam ne la muy jur du baax mm. hypocrisie daal moom mooy naafeq mm. te naafeq du jukko jullit aayaat yi ci nekk ci alxuraan bari na mm. ndax yàlla li mu wax ci ñoom bari na parce que bu dee julli sax nee na yuraa'uuna naas wala yazkuruuna allah illa illa qalila ah ida qaamu ila salaati qaamu kusaala ñoom bu ñuy julli ñoom dong seen néeg julli gi na la ko yàlla ëmb waaw allahu akbar salaamaaleykum waaye bu dee ñun ñaa jàkkaarloo ñoom nag julli ko dafay mat rafet lool mu a yuraa una naas wala te xoolal yàlla moo gore tey ji loolu bu doon ñun maanaam wala yazkuruna allah illa qalilan la illa qalilan mais yow tey liwit man lu ma la defal lu mu bari bari bis boo meree nga naan ma yow amoo benn njëriñ mosoo jëriñ nangam nangam kon yàlla lim leen di mere mere tuddal na leen seen lu baax. kon loolu itam lu jar a bàyyi xel la. Mhm. d' am na solo mu mel ne téléphone bi ubbi nañ ko jërëjëf Oustaz Birama ci développement bi am na solo ubbil nañ leen téléphone yi yéen tamit ñi seetaan ku ci bëgg a participer rek mën na participer ya damay jëlee fi Oustaz jaaxat jeexalee question bu ma lay joxaat. Mhm. mooy dafa wax ne yàlla dane naafeq yi bu ñuy julli dañuy ngistal. Ah. kon ñu gis ne kon ndekete bëri na mayekat. yoo xam ne ni seeni mbokk jéppi nañ leen mhm. kon ñooñu duñ génn ci thème bi mhm. muy hypocrisie mhm. ki nga xam ne nii bu sa mbokk tawatee ñëw seet si la euh, ne dafa am ordonnance buy ñaari junne nga yëkkati deux mille francs may ko te bu dee nga mën a joxe jaxalu cent mille francs yu mel noonu tamit ci société bi ndax matu la xoolaat mu ngi ci biir société bi lu baree baree baree bare xam nga léeg-léeg oustaz Alioune Sall moo koy déglu par fajar dafa naan bu Wally Seck wootee milliardaires yëpp génn baatre waaye ñoom bu ñu wootee seen tànt dañuy xool ña leen fa yëkke te bu ñu leen joxee lu bu bëree bu bëri ci biir tànt ba dix mille francs yeeg yooyu ay lay doon waaye baatre ba ñoom du ñu ko dégg te moonte ñoom ñoo gën a jekk ci baatre te nit ñi fu ñu jaaxlee si ñoom la ñuy woo di leen laaj li yàlla wax mm. kon loolu mu ngi ci dëkk bi nit ñi tey jënd nagu dëj moo leen gën a yomb jënd ordinance deux mille cinq cent bu diw feebaree. Mm. bu nekk dina ko fëgg. fu nekk dina ko lijjanti mais tey bu ñu nee yàlla jël na ko tey balaa tisbaar nag yi gaare. ñu yeew nag dëjal ko dëj bu rëy. Mm-hmm. amaana sax léeg-léeg mbokk mu jege lay doom waaye duñ ko xool. am na tey jii tey boo duggoon ci biir hôpitaux yii rek moo xam foo mënti dugg ci biir dakaar da nga fa fekk ku sonn da fa fekk amee cancer. da fa fekk war a tëdd ñu dialyse ko da nga fa jigéen bu war a def mammographie te ñàkku ne borom barke gi ci biir réew mi mbokkam la mhm. cent mille francs yu mu ko jox sax du ko def waaye tey ji bu ñu ko newoon ne leen moom mooy jël mbub ma aaki moo ko nekk première taxaw ci kanam mhm. loolu loolu nag di encaissé jaxal yi di dëj dëj bi di jooy jooy te araam mhm. amaana sax mën naa toog ay weer du jaar kër kooku parfois fois dangay dégg moo xam muy ci néew yu bari de bu ñu mënoon a dekk ñëw seen dëj mu ngi noonu nañ gàddu ya dàq ñu bari mën ngaa gis nga da ngay déglu si rajo bi wala ngay seetaan ci télé bi ñuy def thème de société yi nga ne yenn feebar yi nan la ko nit mën a amee nit ñi rien bu dul sa mbokk sax xam nga jaamu jaamu yàlla la si nga dégg nit ki feebar na amee na nangam yow mii yàlla dimbali na la te yàlla waxul kenn dara de nga yëkkati tey dem lijjanti ko ci suuf ci suuf nag la ñuy wax kii def te yàlla tax kooku mooy bàyyi ba marax gi maase ba suuf sedd mu jóg dem defi ko waaye mën na nañoo tey ji diw feebar nañu ñëw nañ ko def tem ci rajo bi ñu koy waxtaane nga gis borom barke yépp woote mhm. dinaa ko nangam dinaa ko nangam dinaa ko nangam amaana sax ñoo xamante ne moom ci dinaa ko dinaa ko jooju la yem doo ba tey jii doo leen mës a dégg te moonte de ñoo bokk koñ xëñ na moonte de njabootu kooku xamante nañ ñoo sa njaboot yàgg nga koo gis tey diw mi mu ngi tëdd hôpital mënoon naa jaar dem seet ko mais duñ ko def dañuy bàyyi ba yàlla weddi ñu ñëw taxaw aaki moo xew mi jooy jooy yi def ko loolu man dama dafa dafa dépassé naa fekk si man te ay jullit ñoom ñoo koy defante ci seen ñoo koy def tey ci biir nañ ko wax ay jullit bëri na ci ay jullit yoo xam te ne ñoom ñoo koy ñoo koy def baatre bi. jéegu koñ bi yëpp seen dépense yaa lañ koy mottali te sa jabar dépense am matul. tey eh, ku soxla ci mbedd mi lu say doom wax nga ne leen aw ma lu sa jabar wax nga ne aw ma te boo génnee yaay doon jomba ñaaw ci mbedd mi am na ci biir kër yi am na tamit ci waajur yi ak ci seeni doom am am na am na fu nekk. mais am na ci këru yi patron yu naafeq yi am na ci di jaay jomba ñaaw saay su nekk luñ leen dayale ñu dem luñ leen pare neen ñu dem mhm. te amaana seeni i employé ñoo ngi toog di di xaar te gisaguñu ko ñuy jaay jomba ñaaw ci biti dañ koy wax am na fi lii dëkk bi loolu lan lan lay tekki lan lay signifier ci nit ki xam nga euh, nit ki dana dangay def ndax nit ñi nañ ma gis mais dangay fàtte yàlla mhm. yàlla mi nga xam te ne foo mënti nekk moom moom bul kenn gisu buy guddeek buy naaja ki moom moo la ti moom moo lay gis mm. nga ne waaw tey Euh, Louise woote na tànn biir gu rëy tudde na ma ko na ànd ak sama délégation dem jagaja amaana koñ boobu ñu ne sa koñ boobu ngay génne nit nekk na fa cin tàkkul nit nekk na fa doomam war a jàngi jàngu te xale bu am xam-xam la nit nekk na fa feebar euh, war a war lijjanti ay ordonnance te amu ko yow nga dem di ko di di puukarewu ci mbedd mi. d'accord ñu jël kii ci ligne bi euh, salaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Maxtaar. da bayka. muy ziyaare de. yàlla na ko yàlla nangoo. tey ci waa problème émission bi laa bëgg a participer. waaw bisimilah ñu ngi lay déglu. réew moom boo yëgee dëgg maanaam baax si moom dafa yombatul. Hmm. ndax euh, nit ñi moom booy booy amul euh, xam nga loolu ñu daal si wax ci mooy émission yi ñu def télé di kettal ay nit yooyu. Hmm. man toujours dama naan yooyu. ngir yàlla taxul même borom télé bi koy def mën na jël engagement def faj ko. Hmm. yàlla tax. waaye daal te télé ba am na ko fa nekk faj ko. <laughs> am na yoo xam ne weer nit ki laa weer sa bopp mais jàpp naa ne ngir yàlla. ndax lépp li ngay teg ci télé bi di ko faj. waat naa ci yàlla ne kañee ca télé ba am na ku ko mën a faj te suuf si kenn du ko yëg. wala borom télé bi. ndax it fii moom ala kulli aal ñëppay dem mais dimbali te yàlla tax moo fi amatul. te mbokk famille boo fi gis am na fa ñu am yàlla deful ñëpp ñàkk. bu ñu ko dégg ci Oustaz Aliou Sall. mu yàlla dafay jël benn nit jël force gu famille bépp dénk ko ko toog di ko arbitré. Mm-hmm. te xam ne ala kulli alin na yàlla moom kenn ku ne danga jàkkaar nag moom comme que bi nga leew sax daf la ko laaj waxantuma laa bi lewul mhm. moo tax ku yabu daal di seetaat suñu yaaw te famille bi ñëpp ñàkk amul musuma koo gis boog man ku ko gis ma wax ma ñëpp maa sa ñàkk yàlla déglu kenn te wax Alioune Sall jooju foofu laa gëme mooy yàlla dafay xool kenn mu jël wërsëgu famille bépp teg ko ci loxoom mhm. toog di ko arbitré mhm. xam ne moom yàlla kenn du ko rëcc ñu nag ngay def te yàlla tax moo amatul te mbokk moom kenn mënu ko wecc ala kulli alin mën ngaa yor alal mën nga wecc waaye mbokk yàllaa ko décidé ba pare mënoo ko weccee da koy rafetal ëllëg mu rafet nga ñaawal ko mu ñaaw rek mm-hmm. te am na lu ci suñu borom digee te yaakaar naa suñu moom lu mu digee dana gis li suñ tàmbay naan nit ñi dee leen gëm mais gëmuñu dekk mm-hmm. mais dee moom gëm nañ ko mais dekk gëmuñu te dee sax gëm nañ ko mais dañoo gëmuñu ne su su maanaam nit ki fi may waxee yow ñi sax man mën na maa sunu ruu mën naa wadd fi may wax maanaam betteel bi la nit ñi gëmu chaque jour ñu gis ko mais ba léegi gëmaguñ. Mhm. te dee ala kuleen damaa jàpp ne takk ndeer bi ànd ak nit la. Mhm. saa bu saa bu ko neexee mu teqatal la. Mhm. moo xam ngay lekk moo xam ngay naan moo xam nga feebar moo xam ak lu mën a dal saa bu jotee rek day ak te boobaa nag moom war nga lépp ginnaaw. mënatoo ci leen dara kon nag ngeen koy rafetal rek tey dimbalante te yàlla tax. ku ko mën daal moo nga mënul it moom soo xam nit ñi doomu aadama kenn mënu koo xam xeebu rek di rafetal nit moom yàllaa ko bindal leen dem mm. moo tax lu ñu suturante rek tey rafetante li ci biir nit kenn xamul mm. kenn ku ne la sa xol rek mm. jàpp naa ne moom ngay gis yàlla nag moom mooy borom yërmande yàlla yërëm jaam ñi amiin yaa rabbal aalamiin mbokk mi eh, xalaat yi rafet na macha allah yal na yàlla fay ko yiw mm-hmm. ñu ngi nekk ñeneen ñi ku ci dikk rek incha allah nga participer ci thème bi hypocrisie la ñuy waxtaane muy ak nifaaq dig naa feq dafa am mag mu daan jàngale bu ñu ne naafeq ñu ne ci nafaqa la juróog jugee gi firi tajfal wax a wax mu ne wax ji day sori da ngeen naan an mooy sénégalais rek. mu ne mhm. coow li jeex. <laughs> mu ne boo mu ne boo hypocrisie boo koy firi ci wolof mu ne neel mooy sénégalais rek. Mhm. mu ne coow li jeex maanaam wane ne dafa nekk ci biir société bi ñu koy dund. Mhm. tey bëri na koo xam ne biñ ne ko sa mbokk sàngam faatu na. fitam nee rëf. waaw ah, fitam nee na rëf biñ ne ko sa mbokk sàngam faatu ndax xam na moom lan moo ci responsabilité ba mbokkam moom mu faatu conscience dana wax ak moom nag ay cëram dana ko yëg waaye dana jéem a dëgër dëgër lu waaye gis nga li sa conscience di wax ak yow fekk na ñeneen ñi seen xel yi tamit ñu ngi koy wax mm-hmm. dëgg la da nga ñëw ci dëj bi ne jàkk benn doomam mm-hmm. mu xool la nga xool ko mm-hmm. mu siggi nga sëgg mu siggi nga sëgg nga xam ne ne ñëw na gaaral la papam ji ordonnance bi mhm. bii nga gàntal ko te man nga ko mhm. ak naan ko xaaral danaa fa te yoni of fa te bi naan ko xaaral danaa fa yónnee xam nga ne doo fa yónnee mhm. nga xool ko ci bët mu xool la ci bët nga sëgg mu siggi loolu ku nekk war na cee bàyyi xel te yaay jiitu ca ba kenn ku nekk nga woo ko wi Louis dama am dessin ah, ay massa lan na sama benn tonton Fallou Sène sama tonton nangam kenn ku nekk dajala jaxal indi sa tonton bi lañ la jaale si sa waa société ñëw jaale si la sa tonton nga lekk sa jaxalu tonton te mënoo woon a faj sa tonton <laughs> lu doy waar la ci mhm. société bi mhm. nañ ci bàyyi xel kenn ku nekk rek na nattu boppam man mbaa mbaa duma ab hypocrite xam nga Seydina Umar ibnul Xataab ko daan laajte yenent bi Xudayfa la la joxoon liste naafiq yi yi nekk Madina diw naa feq la ci saxaaba yi ah. mhm. diw naa feq la diw naa feq la nanto mom yag dan ko mbaa bokku guma ci liste bi. <laughs> di geus mo ne ko déedéet bokk goo ci. moy li wax ne ko nek na geus sa bop rek fo ci tollu deug la yalla yalla sutural yàlla suturaal ñu. roxee pare nga. <laughs> waa daane wat ci rek nañu delo ci wat bu gis nga bu weso feebar nit ñi ñu ngi leen genn ci seen kër yi. fekk na amana joy nañ ko fu nek xey xey rek huissier taxaw. te nak li ñi ci gëna ñi ci gëna bari moy ñi nga xamantene ni seeni borom kër dañoo dëdd woon leen ginnaaw ñu yor seen njaboot amaana tey seeni mbokki borom kër sax bu bu yeleen yàlla na tone ñoom ñooñu nekkuñu woon mbokk jàmbur la ñu woon tey seen boroom kër dëddu tey ñi nga xamante ne bi borom kër gi doon dundu ñoom ñoo doon ñëw di ko seet si di ko ree naan ko yaay suñu jam tey bu borom kër gi dëdd ñoom ñoo njëkk a taxaw xeex ko ngir génne ko kër gi toroxal ko xotti ormaam moom ak ay ja ak njabootam hmm. nañ si bàyyi xel te ñu ngi koy dund ñu ngi koy dund hmm. euh, la preuve boo naan ci buntu kër gi ñu nekk rek di nga gis ay nit taxaw fa di la jooytu kaa yu mel noonu hmm. nañ ci bàyyi xel d'accord nañ ci bàyyi xel ku dëkkit ñu bàyyi la xel waaye ñu bàyyi xel Lewis Hamilton moom it lan la ci lan la ci dolli euh, damay ñëw rek ak loo ci dolli ah boolewaale ko question bi mooy bu weesoo dëj weesu nangama nangam tey am na boromi kër yu am doom am doom ak doom ni mu foore nga tas ak seen yaay dégager sa responsabilité mais nag yow la ñuy tagg ci dëkk bi yëpp mën a maye ak social mais sa doom yooyu dërëm dematul ci ñoom te doomu jàmbur yi sax yaa leen fat sa biir kër ñu lay tàgg ak gërëm. Euh, doy na waar li wax am na solo trop trop trop Oustaz Matar ndax dafa am ci dëkk bi. Mhm. Euh, dafa am ñoo xam ne dañuy fàtte démb. Euh, dañuy nekk ak yow mu neex surtout góor ñi abandon boobu góor rekk ko mën parce que man gisaguma jigéen def ko góor ngay nekk moom muy neex ngeen di sëy yàlla weddi ku nekk jaar ne neneen mu fàtte njaboot bu mu njëkk am. concentré wu ci ku ci ku jabar ju bes bek doom yi ci kërëm man eh, damay ñëw ci batu kilifa nan la goor bu ne leng di togué di lek di nan di def li nga wara def su fekkee am nga njabot ci côté ba xalaato ndax ñi ngi lek xalaato ndax ñi ngi naan xalaato ndax ñi ngi fay école xalaato ndax di xalaat ay paramètres yu bari lay layoo rek jubuma ak seen yaay rek. wa parce que yaangi jema metti tal seen yaay. xamal ni métti lool seen yaay parce que seen yaay boobu li ko war njaboot bi mi ngi koy def néew na bëri na mais li mu am mi ngi koy def ci njaboot gi yow nag yaa deful sa wareef te nag nañuy xool tamit encore ci sàmm bi sàmm waajur bu nekk dañ la na nga sàmmee woon sa njaboot yow boo jàkkaarloog sa borom mi ne la noon sàmmee woon sa looy tontu xanaa njaboot boobu du njaboot ah boobu de Seyda Louise la moom boobu moom doy na waar dañ la ko laaj ëllëg <laughs> donc man hypocrite ben hypo forme hypocrisie bi moy hypocrite ci sa bop mhm. c'est possible. moy mhm. Sénégal ñu toll euh, jamono bo xamni les gens vivent au-dessus de leurs moyens. moy mhm. da ngay dundé no no no tollul. lo mënul. roxoye sank day wax né euh madame joytu nit sama location wala li ma amul mais ki ñu si lu si bëri nag ñii joytu location yoy tamit. ñoko tek sen bop en partie dañ koy tek sen bop moy lan da ngay bëgg dëkk biir Dakar.

moo tooñ boppam donc nit da ngay dundee loo am nit da ngay def loo mën bañ a xool euh, euh, bañ a toppandoo xam nga jikko bu gën a bon mooy kuy copier ndax kooku dafa matul xeeb sa bopp nag beneen affaire la moo tax hypocrite mën nga ne ah diw dafa hypocrite diw dafa soxor diw dafa lii waaye tamit del xool tamit sa bopp di rétroviser sa bopp di xool sa bopp naan man lan laa def ba nit ki am jikko hypocrite ci man man est-ce que kii hypocrite bi lan lay wax ci man est-ce que du dëgg en partie parce que mën nga am melokaan bu rafet am baax baax ci kanamu ñëpp fekk na yow ni ngay dundee yaa ngi da ngay foog na nit ñi ngay nax. Mhm. da foog ne yaa ngi am mhm. posture ku ku ku ku aisé. Mhm. ku am aisance ku nekk ci jàmm. fekk ne yaa ngi rey sa bopp si biir. hypocrite sa biir bopp yow boo tëjee sa biir ne nga xam ne man mii kat ni may dundee du sama dundin. loolu moo gën a bon ci hypocrite. loolu man na bàyyi xel am na solo lool euh, Fallou seen waaw patron yi tamit seen i ñi ngi ci de da gis koo xam ne nii jël nay doomu jàmm ne da leen di fay lànk leen a fay waaye nag moom la ñuy tuddee diw social <laughs> mooy mooy mooy daggkatu buumu buumu gàcce gàcce mhm. xam nga nit bu bëggee mucc ci hypocrisie dafay am cas de conscience mu toll day xool di xalaat lu ñu am introspection mhm. des nga dawal sam xel ni ko Liisu waxee nit ki warta tàggook seetu di xool ci seetu bi ba xam dëggu na wala dëgguwul te day waar mooy ñu bëri ñu hypocrite xam nañ ne dañoo hypocrite mm. xam na ne naa fekk lañu ndax bu ñu wéete rek xam nañ ne moom lañu seen conscience na leen ko te saa yu ñu génnee nag ñuy gaañ doomu aadama yi loolu la mooy li nga wax ci buñ génnee poosé waaw poosé loo tax ma ne léegi bi jamono yi poosé xewee ak léegi la lépp faussé buñ nee bañ naan crise des valeurs crise moom baaxul ci dara ay valeur buñ ñu demee ba am crise moom la benn sociologue bu mag bu ñuy wax Émile Durkheim doon wax anomie situation de dérèglement de la société société bi dafa déréglé wu dañoo dem ba xamatuñu maanaam fu ñu teg suñu tànk ku ñëw ku nekk ni mu dikkee noonu la ñu koy jàppee wax naa ko sànq nit ñi amuñu jot di la topp ba xam sa biir yow li nga leen war lañ lay jàppee waaye ndax lim loolum loowal la nga ko war a jàppee kon ki hypocrite mooy ki faux te ku faux du jóg ci di trafiquer personnalité da koy trafiquer mu ne lay trafiquer yow nag da nga dul comprendre nga xam ne kon boo jëflanteeg moom xam ne kii dëggul wax ngeen ko léegi ci ñi nga xam ne dañoo mën bés. Mhm. mën mbooloo. ngistal jaay maanaa ci loo xam ne maanaam ñoom mën a def la ñuy def waaye duñu dox ci war a def def. Mhm. parce que bu ñu doon def ci war a def def duñ naa fekk dañuy dëggu dañuy xam ne kii kat sama mbokk la war naa koo jàppale sonn na ci feebaram. Mhm. waaye du xaar nag ba dëj bi ñëw may wane na maa def dëjëm. kon mu mel ni fi mu nekk naafeq bëri na waaye kooku wax du ko neex waaye nag d'accord ba ci naan Sénégal bu ko wax tuddee tudd naafeq kon xanaa léegi ko nit ñi xalaat. Mm. waaye Sénégal ba muy Sénégal de. Mm, gore nañu woon amoon mm. jom. ba daan suuraale sa nawle parce que baatu nawle. mataa dañoo dem ba xeeb ko léegi. waaye bu ñu demee ne Sénégalais naafeq la nga xalaat Sénégalais kon loolu garaaw na trop. garaaw na waaw maanaam tas gum tas ci société bi moo tax ñu koy waxee noonu. Euh, dafa am ko dëkk. ah Pape Ousmane ah d'accord kon dañuy jëli Pape Ousmane rek dellu si euh, lu mat a bàyyi xel la Pape Ousmane salaamaaleykum. maaleykum ah suñu thème bi tey daa mel ne rëy na di si dégg de. waaw yéeme na de. hypocrisie. doy na waar. doy na waar <laughs> waxtu lan la ñuy lan la ñuy nekk. dina ci bokk kurel goge di woote C25 ne taxaw nañu tem ngir jàkkaarloog euh, président Macky Sall ak nguuram jàpp ni dafa bëgg def lu yées kii di président Abdoulaye Wade ci élection yi ñu dëkkmal na duñ ko nangu fépp fu mu taxaw dañ fa taxaw ñoom wane seen bopp di woo askan wi ngir mu wuy si leen ci taxawaay boobee ñu am yaatal ko ni ci euh, ndaje mi doon amal ci dañ ci ak suñu ndaw fa teewaloon jamono boobee conseil départemental bu Guédiawaye te yëngat ci wàllu ndaw ñi euh, sàkku ci ndaw ñooñu fexe ba xam la leen war ci élection yu dëgmal ba ñu wuyu genn xeetu fitna ak ka leen ca mën a woo di ab ndaje bu ñu amal ànd ceeg société civile beeg ñi nekk ci parti politique naka noonu it imaam yu mel ni oustaz Makhtar Sarr ñi fësal taxawaay googee ñuy xaar euh, ci ndaw ñi ba nga ca woon euh, daañu ko jukki ci xibaar yi benn waxtu yi dana ca bokkit leneen mu ngi aju ci li nga jël gaal di utali bitim réew directeur du Sénégal de l'extérieur daje xalif général des Mourides ci projet boobee ñu am jëm ci wàll wi waaye it ñi nga xam ne bëgg nañoo ñibbisi ci même réew nañu mën a yombalee seen euh, ci yenn euh, financement yi ñu jébbal ngir ñu mën a taxaw seen bopp ca lay seen soxla euh, sabab bu boobee projet muy wër fépp ci réew mi ngir waxtaane ceeg askan wi moom Sori Kaba di ngeen teewlu kàddum ci xibaar na ci bokkit pont Sénégal bi biñ doon dalloo nit ki démb diggante ñaari réew yi ko sekk Sénégal ak Gambie lii di euh, transporteur ya ñu fekk ca Grand Yoff ca garage bu Bignona di ko rafetlu jàpp ni da leen dimbali ci ñaari fan mooy ci euh, maanaam gaawaay yoon bi naka noonu it yokku leen ci wàllu koom bëgg kilifa yi gën a indi ak jàppandal ci wàllu wi ci yoon wi. loolee di seedu gis-gis ñu fësal ko ci kanam suñu ndaw di Chantal Badji loolee di ponk yu nar a jukki incha allah bu benn waxtu jotee Oustaz Makhtar. jërëjëf Pa Ousmane euh, bi moom tey faaw nga am loo ñu ci baaxe lu doy war sol mbub mo xamne ni eh, jotu la nga nga nga ko eh, wan gañ na lañ jot na la wane lo gëmul han ah, wax lo gëmul def lo gëmul naafeq waaw loolu moom daanaka dafa bëri ci ci ci rew mi léegi eh, xam nga maa ko doon wax demb sax ci oustaz mohammed bi mu doon fàttali yonent bi salaa salaam ba mu doon wax ci melo nafiq. Mm-hmm. bokku na ci nga xam te ne la deg du ko def mm-hmm. sa yekete yëkkatee wax wax na lu amut te bu ngeen seqee colère wuruj na te lu mel noonu tey boo koy xool ci société bi daanaka euh, bëri na waaye li may bàyyiloo xel rek mooy ni bu ñu jàpp ni bëri na rek wala li média bi di fësal rek dafay wane que ni sénégalais yëpp noonu lañ mel wala askam yëpp noonu lañ mel. dégg luñ dul def moom boo ko tuddee mbaa jamono yi suñu xel du dem ci gars yi waaj campagne bi politiciens yi. waaw kay euh, parce que loolu munuñu ko ñàkk bañ a wax parce que da seetlu sax ñoom seen biir dañoo wane sax ñoom seen bopp des fois dinañ xas seen bopp te duñ ko yëg. dañuy gis Oustaz Makhtar euh, politicien da boo maanaam bu bokkut ak beneen bokk politicien bi gis-gis soo ko nee diw de nee naa nga xam lu la ah waxu politicien la rek. Hmm. boo ko sa bopp la boo ko laajee lan mooy waxu politicien. bu ci hmm. ñëw parce que boo nee diw nee na da ngeen luubal xaalis wala diw nee na da ngaa wax dangaa ngaa diggale defoo ko mën ne la kooku day politique rek. Hmm. te bu ñu nee politique yi kon da ngeen di wax lu dul dëgg da ngeen di sàcc alalu réew mi da di nangam ñu ne dañ leen a bëgg a boole ci saak boobu da ngay dégg sax ñu naan lu tax yéen sénégalais ngeen bëgg a wax ne ñun rek ñooy sàcc ñu ne nàngam mm. déedéet laaja ngeen ni kooku dafay politique rek mm. kon nga gis ni kon mm. il faut ñu wax ni discours bi dëggantaan fan la ne donc loolu dafay delluwaat rek parce que dëggantaan li ñuy li ñuy réere mooy politique ki koy def noble la dëggantaan. Mm-hmm. parce que taxawu askanu ci seen i soxla. di ko faj ki koy def kooku d' abord il faut mu fàtte boppam moo tax il faut ñu delluwaat ci fondamentaux yi oustaz Makhtar. Mm-hmm. souvent dañ koy wax ñoo dàq digle waaye ñii digle ñu ci ëpp ci ñun. Mm-hmm. du ñu sangu. te bëgg nañ ñëpp set. Mm-hmm. waaw ñi ci ñi ciy woote njub ci ñun ñëpp ñu ci ëpp ci ñun jubuñu te bëgg nañ ñëpp jub xam nga loolu tamit problème la mooy li mm-hmm. waaja waxoon rek mu ne bu fekkee ni bu nit ñi feebaree ñu ngi ko yaakaare ci docteur yi ngir ñu faj leen mm-hmm. fekk docteur boobu moo gën a wopp ñëpp kañ la wér di am kenn xamul bu fekkee ni yow yaay woote ak leeraange te yow bu ñu la ñëwee pour nga leeral askan wi ci li nga xamante ne waroo am na ci. Mm. te yow yaa gën a réer ñëpp kañ la gindee ko ji am. Mm. tey jàpp naa ni sunu réew mi foofu lañ toll moo tax jafe na. Mm. bu ñu yegsee fii li ñu mën a dimbali rek. mooy ñu am ay doomu Sénégal yoo xamante ne. ñoom nga xas leen. nga tuumaal leen. nga wax leen du bon. du tere ñoom jël nañ seen jëmm yi jël seen xel yeeg seen xol yëpp addiyal ko Sénégal ne jaral na leen ko nañ leen wax lu ne. waaye nañ taxaw. wax dox jëf bu jaree sax ñu faat leen ngir ëllëg sax bu ñu fi jógee ñu xam ne ñoo amoon dëgg mm-hmm. jaral nañ ko pour man doomu yooyu la Sénégal soxla ci jamono ji pour que ñu jixaat parce jixaat baat boobu il faut mu ñëw ci société bi mm-hmm. te ci secteur yëpp la Oustaz Makhtar dëgg la jixaat ci ñi nga woo ñi nga xam dañuy woote woo ci diine ji te mm-hmm. amuñ ci lu dul tur wi jixaat ñi nga xam te ne dañ leen dénk suñu ndombal tànk te defuñu lu dul caaxaan ak po la nga xamante ne loolu la ñuy xaar ci ñoom duñ ko matale il faut ñu jaxaat jëm ci ñoom mm-hmm. jaxaat ci ñi nga xamante ne tey ñoom la ñu yaakaar ci wàllu atte ñu maandu ci li nga xamante ne dox na ci diggante ñaari doomu aadama mm-hmm. moo xam sénégalais ku mënti doon ñu war a nag féetewoo fa dëgg ne comme ne ko euh, Seydina Omar waxee ne dëgg suufeel ma te néew na bu mu amee moo ma gënal foofu dëgg euh, maanaam fen bu ma yëkk te néew na bu ma amee ñu fexe jaxaat jëm ci ñoom kon nga gis ni mm-hmm. fii ak amuñu taxawaay boobu noonu ci suñu Sénégal bii ñu woote woon ni bëgg nañu ko rek moo ne yeggaguñu dëgg dëgg dëgg euh, ci xaddis boobu di wax ni bëgg sa réew ci jaamu yàlla bokk. macha allah ni am na solo ñu delluwaat ci fondamentaux yooyu. macha allah am na solo mooy ñu delluwaat ci fondement yi buñ ci delluwaatee dinañ am tabax bu dëgër jërëjëf ba benn waxtu ak jàmm allah Pa Ousmane. jërëjëf jërëjëf ñu sant ko baax a baax gërëm ko. ba benn waxtu ak jàmm ci xibaar yi fàllu mu mel ni mën nga daaneel euh, waxtu wi ñeenti minutes ñu dese. li ñuy wax foofu rek. joxe seen dénkaane. fondement dañ koy fonk. Mhm. ba bañee màbb. kon mu mel nii nit ki bu naa fekkee du dëggu dëggu rek moo wóor dëggu nag baax na lool waaye dëggal mooy tax mu dox ba dëggu mm-hmm. boo ko defee te dëggaloo mm-hmm. du dox mm-hmm. ndax mën naa nekk sa biir rek nga koy yéene kon problème bi mooy léegi nit ñi ndax dinañ mën a wóolonte ndax ni naa fekk amee léegi ndax nit ki damay yem ci biteem rek jàppe ko ko wala damay sori ba ci biir am na koo xam ne dala dul may nga dugg ba ci biir nag kon ci biti rek ngay mën a yem d'accord jërëjëf Roxee lan mooy seen dénkaane. Euh, dellu siwaat nit ñi rek euh, ñu bañ a nekk euh, nit ñi nga xamante ne ay nit wu benn nopp lañu lu ñu ñëw wax leen si diw ne diw nangam ak nangam nii la mel. nga gëm ko téyal ko nit ki te fekk na amaana xamoo nit ki ci biiram ñu bàyyi si xel bàyyi si xel ci ñi nga xamante ne tamit ñoom ñooy waajur yi ñuy wax seeni doom dëgg bu ko defee ñoom tamit ñu mën a màggaaleeg ñoom bañ ji fëkk jëf bañ di ngistal bañ di doon ay naafeq loolu mel mooy mën a am ñu am société bu dëgër am société bu dëggu am société bu jub. jërëjëf Louise. may wax Oustaz Makhtar ñu bàyyi xew xel bu baax ci làmbu langue politique bu ñu nekk dañoo nekk ci jamonoy politique di wax nit ñi ñu ñu jël benn exemple gis ne opposition beeg ñi nekk ci au pouvoir boo xoolee ñoom ñëpp bu ñu dajewee feneen fu dul langue politique ay xarit lañ boo xoolee ñi nekk ci pouvoir bi ñu ngi jël ay doomu ñi nekk ci opposition bi di leen def seen entreprise yi donc ku ñuy nax xamuñu ko ñu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax a baax di ñaan yàlla teg ñu si yoonu siraatal mustaqiim nga ne ñi nekk ci ñi nekk ci opposition bi hmm. ak ñi nekk ci pouvoir bi hmm. buñ dajee feneen fu dul langue politique ay xarit ay waay lañ seen doom yi hmm. ñu ngi jëlante seen doom yi ku nekk jox sa doomu moroom liggéey donc seen xastante bi yëpp ci kaw la yam ñu bañ ci ñaawoo ñun population bi ci suuf nga xam ne dañ ciy xeex dañ ciy xuloo dañ ciy daj lu nekk di ñaan yàlla teg ñu musal ñu ci hypocrisie teg ci ci yoonu siratal mustaqim d' accord jërëjëf oustaz Birama waaw xam naa li may jeexalee rek loolu lu luy jafe la pour mu dañ si askan wi oustaz Maxtaar nga tubaab bi tubaab bu la buggul naan la bugguma la mu jeex waaye ñun dangay nekk ak koo xam ne ngay gis koo xam ne daf lay wan ne bëgg na la waaye wax dëgg yàlla bëri na loo yàqule te gannaaw yàlla ci moom la jaar pour yàqu loolu nag kenn mënu si lu bari ni ko sëriñ Fallou waxee rek nit bu mu la mayul si boppam itam doo ko mën a xam si moom moo tax daal ku yebu moom sa bopp ndax mieux vaut être seul que mal accompagné. bu fekkee ne ñi lay wër moom dañ lay yàqal euh, dañ lay wër rek di lay yàqal nga fexe ba moom sa bopp daal. ah li wis wax itam wax dëgg yàlla yóbbaale nañu ñëpp mooy ndénkaane li ñoom ñoom ñooy oustaz ñoom rek ñooy nguuru de. ñoom rek ñooy nguuru depuis 1960 ba tey ñoom la ñoom kese <coughs> mënu fi génne keneen ñoom dong la. léegi nag pour pour maanaam euh, euh, défi bi mooy ñoom ñëpp ñoom ñëpp nañ fi jógee ñu indi leneen lu bees. Hmm. ñu indi leneen lu bees leneen lu bees loolu nag bu bu doxul itam comme ni ko maam Ousmane waxee rek yombul daal du yomb wax dëgg yàlla ndax niñ ko organiser ak niñ ko defee. d'accord du yomb pour changement am. waaw ndax jikko yi mooy yàqu ragal yàlla gi des wala amatul moo tax daal hypocrisie bi dafay yomb dafay jafe lool pour mu jóge fi. Hmm. sëñ Fallou li may jeexalee rek mbokk yi bu ñu waxee ne Sénégal maanaam naafeq gi. li wolof di wax naan Oustaz Makhtar wolof euh, bu ndawal gépp meloon ni res mhm. kon gobar du ca am yoon mhm. waaw bu ñuy lim xeet tam ndey ak baay taxul mhm. am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla dara jarul leen jaay seen ngor am na ñoo xam ne dara jarul leen soppi lañ doon d'accord ndax liñ naan naan fii nii dereti góor moo fiy daw dereti nang ma fi daw am na ñu koy wax ba léegi mais am na ñoo xam ne jàpp naan sax boo leen jamoon ngelaw mooy génn wala ndox waaye du doon deret. d'accord jërëjëf Oustaz Makhtar ñu ngi jaajëfal ñëpp. macha allah ñu sant Oustaz Birama gërëm ko sant soxna Roqiya madame Ngom jaajëfal ko bu baax a baax Alaaji Fàllu mi ci logique bi ñu sant.